bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastagfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluh salawaatu llah wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa saxbih wa man istanna bi sunnatihi ila yawmi ddin أما بعد فإن أحسن فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على كل حال comme ni ko suñu cheikh bi waxee unwaan al muhaadara moo doon an nifaaq muy jëmmi naafiq ci boppam naafeq mooy lan ak lan mooy ay xaajam ak lan mooy ay màndargaam yi koy jëmmal ak itam naka lañuy jëflante ak nit koo xam ne dafa melowoo melokaan boobu lan mooy taxawaayu jullit bi ci digganteem ak kooku ak itam yan yoon la nit ki mën a jaar ba yàlla subhanahu wa taala musal ko ci feebar boobu di feebaru nifaaq ndax loolu mooy samaratu al mooy ne loolu ci boppam mooy li ñuy jariñoo ci waxtaan bi dëgg-dëgg ndax jubluwaay bi nekkul rek waxtaan ci an nifaq min baabi ziyadati al maarifa min baabi taraf al ilmi ci wax nii rek ci nifaaq mooy lan ngir xam gën a am culture générale loolu nekkul ne mooy jubluwaayu jàng bi ñuy jàngalante ak di yittewoo wàllu xam-xam di introduire ay sujet di ko discuter di di ci waxtaan Euh, jubluwaay bi dëgg-dëgg mooy ngir jële ci ay njariñ yoo xam dafay delluwaat ci nit ki ci dundam kon lu mujj loolu di turuqul wiqaaya min an nifaq muy naka la nit ki di def ba mucc ci naafeq googu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee lu mujj loolu nga xam ne mooy conclusion waxtaan bi loolu dëgg-dëgg mooy at samara mooy njariñ li nga xam ne fruit bi nga xam ne nit ki dina ko dina ko wittee ci njàngat bi nga xam dañ koy jàng an nifaaq an nifaaq buñ koy seetlu ci làkk arab comme na ko cheikh al islam taymi rahimahullah waxee daf ne al arab xamuñu ko woon daawuñu jëfandikoo baatu munafiq comme ci sens bi ko lislaam jëf mais baatu nafaqa amoon na ñu daan wax naafaqa yu naafiqu nifaaqan wa munafaqatan baat bi ñu jëlee ko ci naafiqa ul yarbu al yarbu nekkoon benn walla boog nekk benn rab benn mala woo xam ne xëy na ci xojog lañ koy xame aw rab bu ndaw la tayib aywa an nafaq dafay nekk lu ñu gas ci suuf baatu naafaqa yunaafiqu munaafaqatan wa nifaaqan dafay wax ne borom xam-xam dañuy wax ne ñu ngi ko jëlee ci am pax moo xam ne dafa bënn sar génn jaar fël feneen dafa am aw rab boo xam ne dafay dund ci suuf léegi day gas ñaari pax wala boog day gas pax boo xam ne day am ñaari bën bën benn bën bën bi da koy nëbb benn bi mooy feeñ boo ko dàqee ba mu dugg ci bën bën bi nga taxaw fa di ko séentu ngir mu génn mu jaar ci ba ca des génnee fa loolu ñu tuddee naafiqa al yarbu baat bi foofu lañ ko jële ba léegi tamit nañu wax ne nafaqati ba ida maatat ay xarajat ruuxuha aw aw mala bu faatoo dinañ jëfandikoo baatu nafaqa mooy ne ruuxam génn na kon dañ ciy déggee al xuruj moo tax yàlla doon wax innal munafiquna humul aw innal munafiqina humul fasiqun al fisq boobu leen yàlla subhanahu wa taala melal mooy al xuruj an taa al xuruj an sharia mooy génn gi nga xam ne génn nañ ko topp yàlla subhanahu wa taala génn nañ ko shariatullah kon ci làkk arab dangay dégg ci baat boobu wàllu génn danga ciy dégg tamit loo xamante ni dafa dugg fii sar génn fële ci làkk arab loolu nga ci déggee bu dee ci almaana shar'i an nifaq mooy idhaaru lislaami wal xayr wa ibtaanu alkufri wa shar mooy nit ki di feeñal ak di fësal islaam ak di fësal yiw ba noppi di feeñal di nëbb di denc ci biiram weddi yàlla ak lu bon lan moo tax ñu ne idhaaru lislaam wal xayr ndax ci kanam dina ñëw ñu xam ne nifaaq ñaari xaaj la du benn xaaj pour taarif bi nekk taarif jaami ngir définir ko ci façon boo xamante ni façon bu yaatu la mu ëmb mboolem xeetu naafiq yi mboolem xeetu nifaaq yi ñu ne izhaarul islaami wal xayr mooy nit ki di fësal ak di wane ci kaw lislaam di wane ci kaw lu baax lu yiw li nga xamante ni moom lay denc ci biir nekk safaanu loolu nekk ak kéefér weddi yàlla wala mu nekk lu bon loolu mooy définition bi nga xam ne moom lu borom xam-xam yi jox an nifaq ci fi ci taarif al shar'i boo ko lëkkalee ak niñ ko waxee woon ci làkk arab di nga gis ni am na tanaasub munaasaba bu am ci seen diggante ñoom ñaar ni mu amee mooy ne bi nga xamante ni naafeq bi duggee na ci buntu lislaam ba nga gis ko mu jaar ci buntu kéefër génn dugg na ci bunt lu baax buntu yiw ba nga gis ko mu jaar ci buntu lu bon génn mooy dugg ci mbir génnee ca safaan ba fa nga xamante ni nit ki xëy na du ko fa séentoo loolu boo ko seetloo yi gis ne munaasaba la bu am diggante jëfandikoo bi nga xam ne araab yi daan nañ ko jëfandikoo baatu an nifaaq ci seen làkk ak bi lislaam ñëwee jëfandikoo bi mu ko jëfandikoo ñu koy tuddee ak taarifu shar'i naafiq googu yàlla subhanahu wa wax na ci lu bari ci alquran alquran yitte woon a seen mbir ci di leen melal ak ci di wax ci seen i melokaan ndax boo gisee ci tàmbali suratul baqara yàlla subhanahu wa wax na foofu ci xaaj xaaji nit ñi nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo lal dund ci kaw suuf ñaata xaaj lañ mu wax ci ki gëm yàlla ki nga xamante ne dafa gëm yàlla ngëm yàlla gu wér yàlla subhanahu wa wax ci kooku ci ñeenti aaya wax ci ki nga xamante ni dafa weddi yàlla weddi yàlla gu wér mu tàmbalee ci alif miim ba ulaika humul muflihun beneen bi ci des mooy ci ñi nga xamante ni dañoo weddi yàlla weddi yàlla gu gu bér inna alladina kafaru ba adabun azim muy ñaari aaya yàlla subhanahu wa wax ci ñoom ci seen mbir ñaari xeeti nit yooyu jàll seen mbir jeex ndax ku ci nekk sa mbir lu leer la kii ñeenti aaya la yàlla subhanahu wa taala jagleel ko ci tàmbali saaru suratul baqara kii yàlla subhanahu wa taala jagleel ko ñaari aaya naafeq yi bi mu ñëwee ci ñoom wax na ci ñoom fukki aaya ak ñett ndax seen mbir dafa nekk lu yaatu dafa nekk lu naqaree saytu ndax dafa dafa dafa bëri ay mbir yu ci nekk yoo xamante ne bi neexul peeg neexul saytu yàlla subhanahu wa wax ci ñoom fukki aaya ak ñett ci wa min annaasi ba ci inna allah ala kulli shay'in qadir yàlla subhanahu wa wax ci ñoom aaya yooyu yëpp mu jagleel ko naafeq yi ak seen mbir ak seeni i melokaan kon alquran yitte woon a mbiru nifaaq ndax yàq bi muy yàq ci biir lislaam yàq bu doy waar la nifaaq lu bari lay yàq ci lislaam léeg-léeg nifaaq yi nga xam ne ñooy munaafiquun ni nga xam ne ñooy nekk wala nifaaq bu tasee ci biir jullit yi tas ci biir lislaam yàq bi muy yàq xatta noonu yàlla yi nekk ci biti seen yàq du du du fa àgg loolu bu fekkee jàng nga histoire islam li nga gis ne li nifaq bu nekk ci biir lislaam mën a yàq ak li mën a jeexital ci biir jullit ñi yéefar yi léeg-léeg seen mbonte ak seen xeex gi ñu xeex l'islam mën na faa bañ a àgg moo tax nifaq mbiram lu lu doy waar la moo tax yàlla subhanahu wa taala daan wàcce ay aaya di leeral seen mbir jullit ñi ngir ñu xam ko loolu dina ñëw ci kanam ci bu ñuy wax ci yan taxawaay la ñu war a am ci diggante ak naafeq yi suñu diggante wala bokk ci diggante ak naafeq yi ndax bu ñu suñu diggante ak naafeq yi day mel na kon ñu ngi tàmbali waxtaan bi di tasgiye suñu bopp fala tuzakku anfusakum huwa alamu bi man ittaqa naafiq googu du benn façon ay xaaj yu bëri la comme ni ko cheikh alislam taymi rahimahullah di waxee ndax dafay wax ne an nifaqu anwaaun wa shuub kathira wa laysa nawan waxidan kama anna kathiran min almutaaxirina yagfuluuna anha wa bi hada yadharu aljawaabu an shubuhatin kathira tuuradu fi hada almaqam mu ne naafiq ay banqaas yu bëri la ay xaaj yu bëri la ay xeet ay façon yu bëri la du benn façon naafeq rek moom moo am mu ne léeg-léeg ñu bari loolu la ñuy foog dañuy foog ne genn naafeq rek moo am mooy gi amoon ci jamono yonente bi alayhi salaatu bi mu fi jógee naafeq amatul loolu jeex na léegi daal nit ku gëm yàlla moo fi nekk wala koo xamante ne xëy na ab kàccoor la ci biir jullit ñi koo xamante ni gëm na yàlla ngëm yàlla gu wér waaye ku gàttañ la ci ay jëfam ñu ko tuddee faasiq mais am na beneen sinf bu nekk ci biir jullit ñi ba léegi mooy ki ñu tuddee al munaafiq ni fa boobu fisq bu nekk ci moom mais sifatul nifaq moo gën a dangereux sifatul fisq loolu la bëgg a wax na la ba léegi mi ngi continuer di am mu ne fa inna kathira min al mutaaxirin ma baqiya wala ma abqa fi lmudhirina lilislam indahum wala ma baqiya fi lmudhirina lilislam indahum illa adlun wa fasiq mun ne ñu bëri ci borom xam-xam yi mujjee ñëw dañ yaakaar ni ahlul islam ñaari xaaj rek lañu mooy ñiy dellu ci lislaam dañ yaakaar ni imma ku ci diinem di jafe diineem ak koo xamante ni ab kàccoor la yaakaar nañu ñaari xeet yooyu rek moo am ci biir jullit ñi mu ne wa aradu an xuqmi almunafiqin dannan minhum anna ahda annifaqi qad intaha wa mada walmunafiquna ma zaalu wala yazaaluuna ila yawmi alqiyama والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم mu ne dañ yaakaar ne période bi nga xam ne ci la naafeq doon am weesu na mu ne waaye naafeq dafay continuer di am ba keroog qiyaamu saa mu ne nag naafiq li nga xam ne mooy mahallu shahid mooy ne an nifaaqu shu'ubun wa anwaaun kathira mooy ne ak naafiq ay xaaj la ay façon yu bari la yoo xamante ni bokkul du genn xeetu naafiq rek moom moo am waaye xeetu naafiq yooyu muy shu'ubun nifaaq yooyu yëpp mën nga koo dugal delloo ci ñaari xaaj benn bi ñu tuddee an nifaaq al akbar wa huwa al i'tiqaadi mooy naafiq goo xam ne mooy naafiq gu mag gi nga xam ne mooy naafiqu pas-pas ak naafeq bi nga xam ni mooy naafeq an nifaqul asgar wa huwa nifaqul amali beneen naafeq bu ndaw bi nga xam ni mooy naafeq bu ndaw bi ñu tuddee naafequb jëf léegi léeg-léeg taqsimaat yooyu muy xàjjale yooyu borom xam-xam yi di xàjjale al kufru kufru akbar wa kufru asgar kufru yuxruj an al milla wa kufru duna al kufru ñëw ci shirk na shirk akbar wa shirk asgar léeg-léeg nit ki mën na wax ne lii lan mooy dalilam yani ma dalilu hada taqsim mais daliluhu al istiqra istiqra an nusus nusus al waxyeeni alkitaab wa sunna lan la fan la borom xam-xam yi sukkandiku pour di tàqale di xajale lu mel ne nifaq ñaari xaaj ne naafeq bu mag ak naafeq bu ndaw mooy dañoo jàngat texte yi nga xam ne moo ñëw ci alxuraan ak sunna yépp gis ne dafay saxal nifaq goo xam ni day wane ne borom ku weddi yàlla la ku génn ci lislaam la donte dafay fësal ci kaw diine ak naafeq goo xam ne dañ koy melal nit te deful ci jëf lu waral ci moom ñu àtte ko génn ci lislaam jullit la bu nekk ci lislaam ba léegi mais ak nifaq mi ngi ci moom ñaari yooyu borom xam-xam yi dañ koy tàqale mu nekk loo xam boo delloo ci bunt yu bëri da ngay gis ne dañuy def tafriq bayna al nifaq al akbar ak al nifaq al shirk ak ci kufr nifaq bi bu njëkk bi nga xam ne mooy al nifaqul akbar mooy al nifaqul i'tiqadi wa huwa al nifaqul akbar alladi yudhiru saaxibuhu al islam wa yubtinu al kufr wa hada an nawu muxrijun an ad-din bil kulliya wa saaxibuhu fi ad-darki al asfali min an-nar wa qad wasafa allahu ahlahu bi sifatin aw bi sifaati charri kulliha nifaaq bi nga xam ne mooy nifaaq bu mag bi mooy nifaaq bi nga xam ne nit ki dafay fësal lislaam du dafay fësal yiw rek waaye dafay fësal ne moom ab jullit la muslim la mu'min la ku gëm yàlla la ku ku tuub la ku dugg ci lislaam la ku accepté lislaam la ku gëm yàlla la gëm yonente bi alayhi salaatu fekk li mu fas ci biiram lu waroo ak loolu la ak weddi yàlla ak kéefër la fas ci biiram kooku mooy an nifaaqul akbar an al i'tiqaadi bi nga xam ni nit ki mu nekk ci moom yéefar lay doon moom la yàlla subhanahu wa di wax ci ñoom ne inna al munafiqina fi darki l asfali min an naar mooy ñi nga xamante ne bi ñoo gën a sax suufee ñoo gën a sax xóot ci fa ñuy nekk fa ñuy placé wu ca safara bu ëllëgee fa ñuy placé wu ca safara bu ëllëgee ndax naafeq googu melokaan la boo xamante ne melokaan bu bu bon la ndax nit ki li mu xam ne lii lu baax la ba noppi mu koy fësal ci kaw di ko wane ci kaw raaxaloo ci biir jullit ñi fekk yàlla subhanahu wa taala la fësal fekk weddi yàlla subhanahu wa taala la denc ci biiram moo tax nifaaq googu dafay génn nit ki ci lislaam yàlla subhanahu wa taala melal na ñi ko melowoo ay melokaan yu bon ci alquran ci lu mel ne weddi yàlla subhanahu wa taala ak ñàkk gëm di doyadal diine loolu seen melokaanu naaf naafiq dina ñëw ci kanam seeni i melokaan moo xam bu mag bi wala bu ndaw bi mais nifaaq bi ala wajhil xusuus muy nifaaq bi nga xam nifaaq gu mag la seen i melokaan yi gën a fës yi nga xam ne boo demee ci alquran di nga ko fa fekk bokk na ci al kufr wa adamul iman muy wedd gi ñuy wedd yàlla subhanahu wa taala donte dañuy fësal ci kaw ngëm yàlla subhanahu wa beneen bi ci des mooy di doyadal diine ak képp koo xam ne da nga yëngatu ak di dund ci diine dañ leen di doyadal ak di leen xeet ak itam di leen saboote beneen bi ci des mooy di jeng di jëm ci ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla am ñeewent ak jeng gu goo xam ne dañ dañ koy def di ko jëmale ci ñi weddi yàlla li ko waral parce que ñoom ñoo bokk ànd and bi ñu bokk mooy lan mooy noonoo lislaam noonu lislaam ñoom ñoo ko bokk naafeq googu ci juróom benn mbir lay feeñ naafeq googu nga xam ne mooy an nifaqul akbar al i'tiqaadi bi génn nit ki ci lislaam donte dafay fësal lislaam ci kaw mi ngi dellu ci weddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw ba nit ki di fësal ne ku gëm muhammad la alayhi salaatu wasalaam gëm ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni fekk ne huwa kaafirun bi risalati muhammad wala nekkul ne dafa weddi risalatu muhammad jumlatan wa tafsilan sallallahu alayhi wa sallam mais mu weddi lenn li nga xam loo xamante ne yàlla subhanahu wa taala jox na ko yonente bi alayhi salatu wasalam mu indi ko mu rejeté ko weddi ko ginnaaw bi mu xamee ne lii yonente bi alayhi salatu wasalam moo ko indi ci risalaam beneen bi ci des mooy bañ yonente bi alayhi salatu salaam bañ ko loolu tamit ci mandarga ak nifaq boobu la beneen bi ci des bañ lenn loo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam indi na ko buxdu baadi ma jaa bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy di am kontante ak mbégte bu jullit ñi amee lu leen dal ak jullit ñi dellu gannaaw jullit ñi néew doole mu am ci kontante loolu neex ko lool loolu tamit ci naafeq googu lay delluwaat ba léegi beneen bi ci des mooy bu jullit ñi amee ndam bu jullit ñi amee victoire mu metti ko mu metti ko trop trop trop naafeq googu mun nga ko delloo ci juróom benn mbir yooyu donte feeñ na ci yeneen anam mais yépp mën nga ko delluwaat ci juróom benn mbir yooyu la beneen naafeq bi ci des mooy an nifaqul asgar wa huwa amali naafiq googu huwa amalu alshay wala amalu cheyin min amali almunafiqin wal ittisaaf bi baadi awsaafihim mooy nit ki di jëf lenn ci jëfu naafeq yi wala muy melowoo lenn ci seen i melokaan du ñu wax ne naafeq la goo xam ne wedd yàlla moo moom la fas ci xolam di feeñal lislaam am na ngëm yàlla ku gëm yàlla la mais dafay fësal ak di jëf lenn ci melokaan yi nga xam naafeq yi ñoo ko baaxoo ñoom ñoo koy def muy feñ ci ay jëfam di feeñ ci ay waxam bu ñu nee jëfam rek ay waxam ay jëfam ak ay melokaanam naafeq googu moom nekkul dafa ne dafa àgg ci bële ci degré ndax ñoom ñaar dafa am umum wa xusuus wajihi bu am ci seen diggante mooy ci wàllu tar ak ci wàllu nekk lu dangereux ñoom ñaar bu nekk gën na koo def sa moroom boo xoolee ci wàllu génn nit ki ci lislaam ak saxal ko safara ci suufu safara darkul asfal min an naar ak wedd gi ngay wedd yàlla subhanahu wa taala ci naafeq gu njëkk googu ci buntu boobu boo fa xoolee moo gën a tar ndax day génne nit ki ci lislaam nit ki nga xam ne moo ko melowoo ab yéefar la donte lislaam lay feeñal ci kaw kon ci bunt boobu moom moo gën a tar muy an nifaqul i'tiqaadi moo gën a tar ci buntu boobu mais boo xoolee ci beneen buntu an nifaqul amali moo gën a wóoradi moo gën a naqaree mucc ndax nit ki mën na gëm yàlla ba noppi tàbbi ci lenn ci naafeq googu nga xam ne naafequ jëf la moo xam ci wax wala ci ci jëf ñaareel ba tamit mooy neexula mucc bu kenn tazkiya sa bopp nekkul naafeq nifaaq gu neex a mucc dina ñëw ci kanam ci affaire boo xam ne alimaamul Buxaari moo ko soloo ci ibnu abi mulayka muy wax ne fekk na nangam ci asxaabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kulluhum yaxaafu nifaaq ala nafsihi mu ne fekk na kada min asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi ñoom ñëpp kenn ku nekk si ñoom di ragal nifaaq ci sa bopp naafeq googu nekkul lu naq lu neex a mucc jullit bi la koy tiit ci boppam kon ci ci beneen wàll boobu tamit nifaq bu bu ndaw bu tuuti boobu moo gën a dangereux mi ngi mel ne rek boo ko xoolee ci ñaari façon bokkaale yi bokkaale bu mag bi moo gën a tar moo gën a diis ndax dafay màbb ay jëf bu ci nit ki faatoo tuubu ko day sax safara ak noonu mais bokkaale bu ndaw bi boo xoolee ci beneen côté tamit donte bu ndaw lañ koy tuddee moo gën a dangereux ndax moo gën a oyof moo gën a naqare seetlu moo gën a naqaree mucc kon benn bu ci nekk dafa am benn côté boo xam ne yaa fa gën a tar sa moroom naka noonu tamit nifaaq ci bunt boobu noonu la demee nifaaq bu ndaw boobu bokk na ci lu koy gën a jëmmal di ko firndeel di wane ne lu am la xadisu yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu wax ne arbaun man kunna fihi kaana munafiqan xaalisa wa man kaanat fihi xaslatun minhunna kaanat fihi xaslatun min annifaq xata yadaaha mu ne juróom ñeenti mbir ngi ni yoo xam ni ku mu daje si yow ab naafeq bu bér nga boo xam desul sikki sàkk ci sa ci sa naafeq waaye ñeenti mbir yooyu ku ci am benn mu ne am nga benn ci màndargay naafeq yi ba baa nga koy bàyyi loolu kon mooy wane ne kon nit ki mën na nekk jullit bu gëm yàlla ba noppi melowoo melokaanu ab naafeq kon melokaan boobu mu melowoo benn melokaan la ci melokaanu naafeq yi mais du ko tax a nekk mu naafeq xaalis loolu mafhum min al kon loolu mooy dalil ci isbaat an nifaaqul asgar yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di wax ay jëf wax ay jëf yoo xamante ni ay màndarga la ci naafeq googu jëf yooyu ak melokaan yooyu ci kanam dina ñëw bu ñuy waxtaan ci melokaanu naafeq yi ñaari naafeq yooyu muy naafeq gu mag gi ak naafeq gu ndaw gi am na ay tàqale ak ay xàjjale yu nekk ci seen diggante bu fekkee gën nga bëgg mu gën a leer ci sa bopp bokk na ci yi leen di tàqale mooy ne naafeq bu mag bi ci ci ci buñ la ko définiralee rek ne la li mooy an nifaqul akbar di nga ci déggee ne kon naafeq la goo xam ne dafay génne nit ki ci lislaam yaani yuxriju saaxibahu min al islam dafay génne nit ki ci lislaam nit ki ko melowoo kaafir la xaqiqatan donte li mu wane ci kaw lislaam la mais moom fi l xaqiqa kaafir la alors que nifaq bi nga xam ne mooy nifaqul asgar saaxibuhu yakunu musliman qad yakunu muminan mais waqaa fi fi nifaq ki ko melowoo muy nifaq bu ndaw bi mën na nekk gëm yàlla mën na nekk jullit mais dafa tàbbi ci ak naafeq dafa tàbbi ci ak naafeq kon loolu seen différence la ñoom ñaar beneen bi ci des mooy naafeq bi nga xam ne mooy naafeq gu mag gi boo ko seetloo ci niñ ko taarifee ci niñ ko définir nit ki dafay fas ak wedd yàlla di fësal ngëm yàlla ci biti li mu fas ak li muy fësal jotewuñu dara lu baax lay fësal ci kaw lu bon la fas ci biiram alors que bu ndaw bi nit ki fas na lu baax ci biiram waaye ci ay jëfam day jëf loo xam ne day wane ne xëy na ci biiram li fa nekk ak feq la duñ ne day wane ne ci biiram ak naafeq fa nekk ndax al-zahir unwaanul baatin nit ki des di tegtaloo ci jëf yi ngay jëf ngir xam li nekk ci biir donte mënuñ cee dogu ndax borom xam wax ne al-zawahir laysat qat'iyatu dalala ala al-jawahir nit ki du caagante ni li nga gis ci kaw rek dafay wax ne ala mekk lii moo nekk ci biir nit mën na jëf lu uute ak li nekk ci biiram mais kii nga xam ne moo def ni fàqul asgar am na ngëm yàlla gaa mais dafay def jëf yoo xam ne des koy tiital ci buñ ko gisee ci moom mu fas ci biiram naafeq gu mag kon màndarga la ci mandargay naafeq yu mag yi mais nekkul ne képp ku mu jóge ci yow ñu gis ko rek kon dangaa ngaa am naafeq gu mag gu nekk ci sa xol loolu kon tamit ba léegi différence la ci ñaari xeeti naafeq yooyu beneen bi ci des mooy ne naafeq gu mag gi ku ko def la chaque ne mënuloo nekk ku gëm yàlla comme ni ko waxee léegi ab yéefar rek moom mooy am naafeq googu alors que naafeq gu ndaw gi ab jullit mën na ko mën na ko melowoo beneen bi ci des mooy nifaq bu nga xam ne mooy nifaq gu mag gi ki ko melowoo la plupart du tuub fil ghalib du tuub la yatubu ila allah fi lgaalib almuttasif binnifaaqi al akbar laa yatuubu ila allah summun bukmun umyun fahum laa yarjiun ay laa yacuuduun ila al islam bi tawba yàlla subhanahu wa dafa dem ba seen jëf yi ñuy jëf mu kaste seen yoon yi nga xam ne fa la leen njub waroon a mën a jaaree fa la leen njub waroon a mën a dikkee ngir ñu mën a jariñ ci njub li gisatuñu gisin boo xam dina leen jariñ pour ñu mën cee gisee dëgg déggatuñ dégg boo xam dina leen mën a jariñ pour ñu dégg dëgg seen xol yi tamit bu ci dëgg ak àggoon du ko mën a percer dugg ci ndax xol yi dafa kastewu kon bi sabab bi ni fàq boobu ñuy def dafa dem ba yi nga xamante ni bi ci lañ waroon mën a jariñoo njub yépp dafa yàqu léegi loolu lan lay waral dafay waral ñu gën a nuur ci seen naafeq googu gën a nuur ci seen wedd yàlla googu du ñu dellu moo tax mu ne laa yarji'un bi mu waxee ci yéefar yi summun bukmun umyun daf ne laa yaqiluun yàlla subhanahu wa dafa wax ne ñi nga xamante ne ñoo wedd yàlla ñoom am nañ melokaan googu mooy melokaanu ñàkk mën a jariñoo seen cër yi leen yàlla joxoon ngir gis dëgg yàlla ne loolu lim leen jural mooy dootuñu xelu dañuy mel ne comme ay bàyyi ma di tañax tañaxi dootuñu gis yoon wi waaye naa fekk yi comme que ñoom ci njub lañ jaar ba dugg ci seen réer googu mu ne dootuñu mën a dellu dootuñu mën a dellu mooy rujuux dootul mën a am moo tax nifaq akbar boobu fil xaalib ku ko melowoo du tuub du tuub moo tax yàlla subhanahu wa taala di leen melawaat mu melalaat ba léegi ne awala yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni thumma la yatuubuuna wala hum yadhakkaruun thumma la yatuubuun wala hum yadhakkaruun alquran da daan wàcc di leen toroxal at mu jot di leen di leen toroxal di leeral seen mbir te du tax ñu tuub changer dellu ci yàlla subhanahu wa taala akub yonentam bàyyi seen jëf yu bon yooyu nga xam daan nañ ko jëf jàjjeeku ci loolu ñu nekkoon nifaaq boobu moom mooy ak nifaaqul akbar bu ci nit ki nekkee ba nuur ci ngir mu dellu ci dëgg dina jafe loolu alors que nifaaq bi nga xam ne mooy nifaaq bu ndaw bi nit ki bu ci nekkee yàlla mën na koo baaxe mu dem ba gis ne jëf yooyu nga xamante ni bi melowoo na ko ci ay jëfi mu dem ba bàyyi ko dal di sellal diineem ngir yàlla subhanahu wa taala kon jafeeg tub gi tamit différence la bu nekk seen diggante ñaareel bi ci des wala beneen bu mujj bi ci des mooy ne nifaaq gu ndaw gi borom xam-xam yi dëppoo nañ ne ci bu ko nit ki ñëwoon tuub ko bu ko melowoo woon tuub ko ñëw jéggalu tuub ci xaakim bi wala ci qaadi bi dañ koy nangul tuubam mooy ci attekat bi alors que nifaq bu mag bi nit ki xëy na bu tuuboon digganteem ak boromam dinañ ko ko nangul mais borom xam-xam yi dañu uute ci ndax tuubam des na ko ko nangul wala duñ ko ko nangul moom bu tuuboon tuub gu wér bu sell ci digganteem ak boromam loolu moom digganteem ak boromam dinañ ko ko nangul moo tax Cheikh al-Islam Taymi rahimahullah di wax ne wa qad ixtalafa al-ulamaa'u fi qabuli tawbatihim fi adh-dhaahir li kawni dhalika la yu'lam ay laa yu'lam sidqu tawbatihim id hum daiman yudhiruna al islam cheikh lislam taymi rahimahullah muy wax ne borom xam-xam yi dañu ute ci naafeq gu mag googu ndax nit ki bu ko defoon nekk ci ba mu yàgg mu bëgg a tuub ci l'islam est ce que dinañ ko nangul tuubam wala déet bokk na ci li gën a tax nangul ko tuubam nekk lu jafe mooy bu ñëwee di tuub da naan ko ci looy tuub ndax koo xamante ni l'islam la doon fësal ci kaw ak lu baax benn bis mu ñëw ne dafay tuub dëggal lislaamam jug ci mbonte bi mu nekkoon nga ne ko ban mbonte parce que li nga gisoon ci kawam xam ko ci moom lépp lu baax la lislaam la kon bu ñëwee ne dafay tuub day jaaxal nit ñi parce que nit ñi xamuñu woon loolu mu dencoon loolu mu nëbboon nit ñi xamuñu ko woon kon ñàkk goo ko nit ñàkk xam dafay nekk luy gën a compliquer tuubam ñaareel ba ci des mooy bu ñëwee ne dafa tuub ak dëggoom ci tuubam neexul nekkul lu neex a justifié ndax mën na ñëw waat loolu comme arme pour gagner confiance jullit ñi gën leen a lor encore moo tax dëggal ko ci kaw tuubam googu yenn borom xam-xam yi ñoom dañ cee dañ cee gàttañlu dañ ne ñoom duñ ci mën a sori ci dëggal naafeq bi nga xam ne dafa meloo woon nifaq akbar nekk ci biir jullit ñi di leen lor ñoom mënuñu koo dëggal ci kaw tuubam dañ ci gàttañlu parce que ak dëggoom ñoom mënuñ koo xam ndax xattaa ñëw na di wane lu baax ne dafa tuub lu baax loolu naka jekk moom la daan wane te nekkuloon lu dëggu ci moom kon tey bu ñëwaatee di ko wane ne dafa tuub du nekk lu neex a dëggal tamit loolu kon lenn la ci ay furuq muy ay différence yu nekk ci diggante an nifaqul akbar ak an nifaqul asgar bu ko nit ki xamee noonu lekkoon dina am gis-gis bu leer tuuti ci lan mooy an nifaq muy fasal gu nit ki di fasal l'islam di fasal lu baax ba noppi denc ci biiram loo xamante ni lu safaanoo ak l'islam boobu la lu safaanoo ak lu baax loolu la dugg gi mu jaaree ci biir l'islam ba nit ki gis ne ci yoonu l'islam la jaar mu jaaree ci buntu kéefër génne ci buntu kéefër muy duggee ci buntu génne ci buntu bi nga xam ni moom lañ ko daan jëfandikoo ci naafiqa naafiqa ul yarbu mooy euh, bàyyi ma boobu ñu waxoon ne dafay gas ci àll bi ñaari pax mu mu mu jokkaloo bu duggee ci bii buñ ko dàqee mu génne ci ba ca des nga gis ne kon am na munasaba bu am bayna taarif wala al istimal al lugawi ak al istimal al shar'i ci ñaari euh, nu mu tuddati utilisation yooyu ñu doon utiliser baat yi beneen bi ci des mooy seetlantal tamit ak xam ñaari naafeq yi wala ñaari nifaq yooyu bu ci nekk ak dayoo ban la am ci lislaam buñ jógee foofu ñu waxtaan ci sifaatul munafiqin mu nekk loo xamante ni xëy na moom moo gën a lal waxtaan bi moo gën a ëmb dëgg-dëgg waxtaan bi ndax lële ci définition bi liñ ci gën a jublu mooy nit balaa ngay wax ci dara fokk nga xayma ko xam mbir mi ngay waaj a wax lan la ba ki ngay waxal mu xam ci lan ngay wax nga soog a commencé di wax ak moom ndax bu ñu ñëwoon commencé di wax naan melokaanu naafeq yi lii la ak lii la ak lii la te xamoo dëgg-dëgg lan mooy nifaaq dafay jafe pour nga dégg li ñuy wax naafeq yàlla subhanahu wa taala melal na leen melokaan yu yu yu bari ci lis ci ci alquran yonente bi alayhi salatu wasalam tamit wax na ci seen mbir ndax islam bokk na ci matam mooy comme ni ko al imam ibn al qayyim al jawzi rahimahullah di waxee mooy ne njub dëgg al rachad al hidaaya dëgg mi ngi nekk ci ki nga xam ne dafa ka dafa xam tariqul xayri xam tamit tariqu al xay wa char dafa xam yoonu lu baax muy siratullahi almustaqim yoon bi muy sóobu mu jëm ci boroomam subhanahu wa taala xam tamit yoon bépp boo xamante ni yoon bu bon la bu safaanoo ak yoonu borom bi subhanahu wa mën leen a ràññatle ci lu rëy ak lu tuuti ci lu rëy ak lu tuuti ndax nit ñi seen xam-xam ci mbir yooyu tolloowul léeg-léeg nga gis koo xam ne ci yi gën a yaatu yi gën a màgg yi gën a jëmm xàmmee na siratullahi ak tariq turuq yi nga xam ne mooy turuqu shaytan mais boo demee ci tafasil yu sew sewaan yi xàmmeewu leen léegi foofu lay doonee mazallaam foofu lay amee maanaam foofu la ko sheytaane di jaare ci yu sew sew yooyu nga xam ni xàmmeewu ci ñaari yoon yi mënu leen a tàqale foofu la ko sheytaane di jaare mu ne nag ñi nga xamante ni bi dëgg-dëgg ñoom ñooy tegu ci yoonu njub ñoom ñooy ñi xàmmee ñaari yoon yooyu xàmmee bu bu leer nañ mu wax ci ñi nga xamante ne bi tamit dañoo xàmmee yoonu yàlla bi subhanahu wa taala xamin boo xamante ne bu wér la te xamuñu yoonu yoonu seytaane mënuñu ko ràññetle mu wax ne ñu ëpp ci ñooñu dañuy soobu ci yoonu yàlla bi ci tàmbali bi mais dañuy dem ba ci biir ñu sànq ñu réer ndax seenu réer mi ngi leen di dikkee fa ñu sooboo ci yoonu tegu teg ci lu baax te mënuñoo ràññetle lu baax ak lu bon ndax boo mënta ràññetle lu baax ak lu bon te ci yoonu lu baax fa la seytaane tamit di jaare ak seeni melokaan du pour xëy na toog di wax pour nit ki xëy na di euh, layal boppam wala di junju nit wala abadan ay awsaaf la yoo xamante ni ne alquran moo ko indi ak sunna yonente bi alayhi salatu lan moo tax alquran insisté ci di wax ci melokaanu naafeq yi wax ne yuftanuuna fi kulli aamin maratan aw maratayni ci yàlla subhanahu wa taala toroxal bi mu leen daan toroxal ci di leeral seen mbir ngir jullit ñi xam ko ngir mën leen a moytu ak ngir moo ngir mën a moytandiku tamit ak nifaaq ndax boo xamee mandargay naafeq yi dina tax nga moytandiku naafeq yi xam leen mën leen a moytandiku ndax ñàkk leen a moytandiku yàqute lay jur beneen bi ci des tamit mooy dina tax nga mën a moytandiku jikko boo xamante ni dafa jëm ci loola mooy jikko nifaaq bokk na ci seen mandarga yi gën a fës wala bokk bokk na ci mandarga yi naafeq yi nga xamante ne bi ñoo gën a fës al kadib fi l fi والخيانة في الأمانة والفجور في المخاصمة وإخلاف الوعد ونقد الميثاق nga boole ko gis ne dafa am talaasum bu am ci diggante jikko yi comme ne ko yontu bi alayhi salatu salaam ijmaale ni mu ko boolee yépp ci benn xadis mooy di fen ci ay waxam nit ki di fen ci ay waxam fen jikko bu bon la kaana abgad al xuluq inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al kadib comme ni ñëwee ci atharu Aïcha yonente bi alayhi salatu wasalam jikko bi mu gënoon a bañ mooy fen innama yaftari al kadiba alladina laa yuminuun fen méngoowul ak ngëm yàlla dafa waroo ak ngëm yàlla moo tax mu bokk ci mandargay naafeq yi nga xam ne mooy mandarga yi gën a fës ci nifaaq ndax dafa waroo ngëm yàlla te nifaaq dafa waroo ak ngëm yàlla subhanahu wa taala fen googu dafa am mën nañ koo def ñaari xaaj am na fen goo xam ne jikko lay doon ci nit ki mu melowoo ko di fen fen boo xam ne da ciy wor nit ñi ci di leen jëmmal ak di leen melal ay mbir ci ne mu nekkeewul ñuy jëflanteek ñoom ñu jëflanteeg moom ci kaw fen yooyu mu leen di fen ay loraange di ci juddoo fen googu moo gën a garaaw mooy fen gi nga xam ne dëgg-dëgg moo tax ñuy wax fen te bu tasee ci société bi yàqute yu bari lay yàq mooy taswiru alxaqaiq al xilaafi ma hiya alayhi mooy mbir yi ni mu nekkee dalay ñëw di la ko moo tax alxaafis ibn alqayim di wax ne fen dafa nekk lu doy waar ndax feebar la boo xam ne ki ko melowoo feebar la gu ko gu koy gaañ moom waaye képp ku jëflanteek moom itam dina la gaañ ci feebaram boobu ndax ni mu lay présenté mbir yi ak ni mu la koy melalee dafay uute ak ne mu nekkee nga jëflanteek moom ci kaw baas boobu fekk ne dara nekku ci lu wér fen boobu fen bu doy waar la mais am na beneen fen boo xam ne moo gën a néew boobu daraja tuuti mais fen la tamit boo xam ko nit ki toppee ci bii la ko jëmee mooy ban fen mooy fen bi nga xamante ni bii nit ki day toog ci jataay li yonente bi alayhi salatu wax ne waylun lilladi yuhaddisu fa yakdib li yadxaka bihi alqawm fa waylun lahu summa waylun lahu muy wax ne mbugal ñel ki nga xam ne dafay toog ci nit ñi di waxtaan di bëgg a safal jataay bi ak neexal jataay bi tax muy fen pour nit ñi am lu ñu reetaan boobu fen mooy ban façon fen fen boobu dafay dikk dafay ñëw ci gàtt xel ak doye di ak problème de personnalité mooy sabab la plupart nit ki di fen fen gu mel noonu ndax dafay toog ci jotaay bëgg intéressant bëgg a wax lu neex nit ñi loolu lañu tuddee laa biir li muy wax xëy na dëgg la am na cosaan mais mu yokk ci wala mu waxee ko noo xam ni wax ji dafay gën a neex ngir nit ñi am ci lu ñu reetaan wala wax ji intéressé leen loolu fen la ndax loolu mu ci yokk wala noonu ma ko jëmmalee ci waxtaan bi demewul noona mais nekkul fen boo xam ne da koy utiliser comme arme di ci tromper ni ñi di leen ci lor ak yu mel noonu kon fen bu njëkk bi moo gën a doy waar mais ba même ñaareel bi tamit ñaari xaaj bi tamit fen la fen boobu bokk na ci mandargay naafeq yi seen mandarga yi xam ne gën a fës fen bokk na ci seen jikko mooy wax loo xamante ni du dëgg wax loo xamante ni du dëgg beneen bi ci des alxiyaanatu fi amaana mooy di wor ci buñ leen wóoloo kóolute saa bu amee ndax kóolute dina am naa fekk di nga ko wóolu lu tax nga koy wóolu mooy lim lay wan loo ko war a mën a wóoloo lay doon mais chaque fois boo demee ba ci biir da ngay am déception loolu bokk na ci mandarga naa fekk yi gën a gën a fës mooy boo xoolee ci kaw lu la yéem ngay gis mais saa boo jëflanteeg moom dem ba ci biir da am déception da ngay am lu la bert mooy alxiyaanatu fil amaana ndax melo ci jikko ak ci mbaax lu ko may kóolute gi nga ko jox kóolute gi nga ko wóolu mu matal ko munu koo matal ndax ay jikkoom melu ko melokaan gi moom moo la nax ba tax nga dugg ci mais boo ci duggee doo ci fekk li nga doon séntu kon alxiyaanatu fi l amaana aydan bokk na min awsaafihim wa kadalika alfujuru fi lmuxaasama saa boo dara doxee sa diggante ak moom ci wax wala ci xiiroo bu am ci digganteem ak jullit mu daal di koy yóbbu fu mu àggul daal di ci commencé di bew jéggi ci dayoo di ci commencé di jël ay taxawaay ak ay wax yoo xamante ni mbir mi àggul foofu mooy al fujur fi l muxaasama wa kadalika ixlaafu l waab du la dégg mukk ba def ko bu la joxee rendez-vous doo ko fa fekk du ko du ko du ko respecté ñaareel ba tamit lu mu la dikk bu yeboo nga bañ cee dóor sa doom comme ni ñu koy waxee wa naqdul mithaq defal bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala beneen beneen bi ci des bi nga xam ne day dellu ci jikko yooyu ba léegi mooy naqdul mithaq muy ñàkk respecté seen i engagement ci bu fekkente ni am na dara lu dox ci diggante seen diggante ak ak kenn duñ ko respecté duñ ko taxaw duñ ko duñ ko taxawee ba mat yàlla subhanahu wa taala di wax ci ñoom ne wa minhum man aahada allah la in aataana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min alsalihin falamma aataahum min fadlihi baxilu bih wa tawallaw wa hum mucridun fa acqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna bima axlafu llaha ma waaduhu wa bima kaanu yakdibuun yàlla subhanahu wa taala di wax ci ñoom ne am na si ñoom moo tax xadis euh, aaya bi sabab min asbaabi tafsir yi nga xam ni borom xam-xam yi tuddoon nañ ko ko ci bu ngeen delloo ci kutubu tafasir wax nañ ci tudd nañ ci turu benn saxaabi boo xam ne saxaabi jalil min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hada sabab laa yasix wérul ne saxaabi boobu ñu wax ne moom mooy sabab ci nuzul aaya bi nekkul lu wér aaya bi nazalat fi lmunafiqin yàlla subhanahu wa taala di wax ne am na ci ñoom ñoo xamante ni bi dañoo fasante woon seen diggante ak seen borom ne bu fekkente ni yàlla subhanahu wa taala na leen lenn ci ay xéewalam ci wërsëgam dinañ taxaw ci di joxe ci yoonu yàlla subhanahu wa dinañ taxaw ci di yéwanal ak di baaxal ak di jàppale lislaam bi nga xamante ni yàlla subhanahu matal na loolu nga xamante ni fasa woon fasa woon te woon nañ ko ak seen borom ndax yàlla xam na li nekk ci ñoom bu caagante ni dañoo nax yàlla ci dikko mbir ba mu jox leen ñu war ko ndax yàlla xam na li nekk ci ñoom xam na fa ñu mujjee laata ñu koy def xam na ni fa lañ doon mujjee waaye yàlla da leen di istidraaj maanaam min baabil istidraaj la leen yàlla subhanahu wa taala di joxe li mu leen di jox ndax nit mën a nekk ci maasiya nekk ci lu bon yàlla subhanahu di ko jox mais da koy jox istidraajan ngir gën koo jàpp ngir gën koo mbugal subhanahu wa taala mu ne bi leen yàlla subhanahu wa joxe ci ay xéewalam ñu daal di nay tey seen loxo lànk ne duñ joxe daldi di dëddu du yoonu lislaam ak yoonu lu baax jàppale wuñ jullit ñi yàlla subhanahu wa taala daal di leen di fayee loola mu def ci seen xol yi ak naaféq goo xamante ne yàlla subhanahu wa moo ko saxal dàkk ci seen xol ya naafeq googu moom mooy wéy di sax ci seeni xol sabab bi mooy lan mooy ba ñu wuutalee lañu diggoon seen borom subhanahu wa taala aaya bi ak la nekkoon di fen itam yàlla subhanahu wax fii tudd fi ahd ahd boobu mu tudd ci xiyaana muy wor muy kon coloré wala boog euh, nas ak nocc gu doxoon seen diggante ak seen borom ci loo xamante ni dañ koo diggee woon ak seen borom beneen bi ci des mooy wor goo xamante ni wor nañ ko beneen bi ci des mooy fen boo xamante ni fen nañ ko yàlla subhanahu taala di leen ci melal melokaan yooyu yëpp loolu yëpp boo ko seetloo mi ngi am ci seen digganteeg seen borom subhanahu wa taala baynahum wa bayna allah wa laysa baynahum wa bayna alxalq loolu day wane ne kon jikko yi ak doxalin yi ak taxawaay yi lépp ci ni ñi bu ñu koy dégg ci yonente bi alayhi salatu wasalam muy wax naan arbaun man kunna fihi kaana munafiqan xaalisa wa man kaana fihi minhunna xaslatun kaana fihi xaslatun min xisaali nifaq ñu bëri dañuy yaakaar ne loolu mooy rek sa diggante bi ngay jëflante ak doomu aadama yi dañ ciy fàtte borom bi subhanahu wa taala alors que fen bi gën a garaaw wor gi gën a garaaw fecc kóllërte ak ñàkk matal engagement bi gën a garaaw mooy bi nit ki di def ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala ci feeñal gi muy feeñal gëm yàlla ak accepter li yàlla subhanahu wa taala wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ak li muy warlu ci digganteem ak boromam ba noppi ginnaaw ba ko matal du ci taxaw ñàkk dëggu ci digganteem ak boromam ci di wane loo xamante ne bi namu ci dëgg-dëgg yàlla subhanahu wa taala loolu foofu la gën a garaawee muy jikko yi nga xamante ne mooy jikko yi naafeq yooyu si diggante nit ki ak boromam la gën a taree sax que sa diggante ak doomu aadama yi te itam fexlan ni muy amee ci diggante nit ki ak boromam subhanahu wa taala noonu lay amee tamit ci digganteem ak ay moroomam comme ni mu ñëwee ci xadis bi nga xamante ne mi ngi fi saxiix yonente bi alayhi salatu wasallam di wax ne ñeenti mbir yi ku mu nekk ci yow ab naafeq nga ku ci am benn am nga benn ci mandargay naafeq yi ba baa nga koy ba mu lim mbir yooyu nga xamante ni tuddoon nañ ko léegi bokk na ci seen jikko yi léegi ba léegi ñoom naafeq yi ne yatanuun fi lmuminin yatanuuna fi ibadillah wa yushakkikuuna fi nawaayahum alxaalisa yaani bi lams dañuy dal ci kaw jullit ñi di leen ŋàññi fu ñu toll di leen critiquer ku góorlu di taxaw ci diine di jàppale diine ñuy sikki sàkkaloo nañ sa yéene bu sell naan dafay ngistal dafa bëgg gis leen ma nangam sàngam di wax ci sa yéene ndax lu baax li ngay taxaw ci lislaam boo xawee gàttañlu ñu lay critiquer di dal ci sa kaw kon boo xawee gàttañlu ñu dal ci sa kaw ci ŋàññ la ci sa boobu boobule boo góorgóorloo ñu dal ci sa kaw ŋàññ la ci ne da ëppal wala ci ne da da ngay gistal da bëgg gis leen ma ak yu mel noonu le muy lamz boobu nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne dañ koy def jullit ñi ci seeni sarax ndax jullit ñi dañ doon yonent bi alayhi salatu wasallam daf leen daan soññi ñaax leen ci sarax ku indi lu bari naafeq yi di wax ci seen biir naan xool leen ko dafay ngistal lii muy def nii bugg ci yàlla subhanahu wa taala mais dafa bëgg gis leen ma ku indi tuuti ñu xeebal la sa tuuti boobu di la reetaan ak di di la saboote yàlla subhanahu wa taala wàcce ci ñoom di wax ne الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم bokkat na ci seen jikko yi ba léegi at-tadabdub bayna fariq al-iman wa fariq al-kufr muy dengi dengi bu ñuy nekkee ci diggante ñi gëm yàlla subhanahu wa taala ak yëfër yi li yonente bi alayhi salatu wasalam waxoon na ci mathalu naafiq masalu munafiq ka masal al al al al ganam al xaaira mu ne nafiq wala ashaatul xaaira bayna al ganamayni mu ne misaalu nafiq dafay mel ne comme ab gàtt boo xamante ni dafa dafa jaaxle jànnaxe ci diggante ñaari gétt benn gàtt boo xam dafa nekk ci diggante ñaari gétt xamul kan lay topp bu toppee ñi ba mu yàgg mu dëpp dem topp ñële mooy tazab boobu nga xamante ni bi dañ koy def te yàlla subhanahu wa doon ko wax ci alquran mudabdabina bayna dalik la ilaha illa wala ilaha wala dañuy déngi-déngi ci diggante kuréelu jullit ñi ak kuréelu ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala di waxaat ci ñoom ba léegi naan alladina yatarabbasuuna bikum fa in kaana lakum fatxun min allahi qaalu alam nakum maakum wa in kaana lilkafirina nasibun qaalu alam nastaxwid alaykum wa namnaakum min almuminin bu fekkente ne jullit ñi yàlla defal na leen ndam ñu ñëw ne ñun ak yéen ñoo àndoon daan jihaad fi sabilillah daan xeex daan góorgóorlu ba li am kon boole leen ñu ci xéewal gi bu yéefar yi amee dara ndax yàlla subhanahu wa taala nasib la leen na ko tuddee waxul ne nasr min allah bu ñu amee dara ci jullit ñi ñu dem ne leen ñun ñoo doxoon seen digganteeg jullit ñi ñoo tax ba li ngeen am ngeen am ko kon du ñu bokk fii du ñu bokk fii dañuy xool ban kuréel moo ëpp doole rek ñu dem bokk ci kuréel googu le bu yéefar ñi doole jullit ñi ëpp doole boo xam bu leer la ñu dem far ci ñoom jàppale leen feeñal seenu far ci ñoom bu dee jullit ñi ñoo ëpp doole ñu dem bokk bokkulu waaye di dem ci yéefar yi di leen wax naan leen bàyyi leen ñu xel ci yéen lañ bokk moo tax comme nañu ko waxewoon ci xadis bi nga xamante ne alimam muslim solo na ko min xadis abdullah ibn abbas radiallahu anhuma yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne mathalu lmunafiq ka mathali alshaat alxaaira bayna alganamayn taciru ila hada marra wa ila hada marra ba léegi bokkat na ci seen mandarga yi ak talawun xasaba zuruf di changer ay couleur naafeq nekkul ku fixe koo xamante ni da koy mën a fixé xam ne nii la mel couleur bu ko neex adopté nu ko neex mel day dépendre rek ci situation yi ak yan ci yan condition lañ nekk fu mu nekk loolu dafay fay fësal bu ñu mësaan ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dañuy ñëw wan ko ngëm yàlla subhanahu wa taala sëkk wan ko ne ko tey na na itam ku koy topp lañ bu ñu ñëwee ci ñi gëm yàlla subhanahu wa taala wax leen ne ñun ci yéen lañ bokk dañoo gëm yàlla subhanahu wa taala wa ida laqu alladina amanu qalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qalu inna maakum innama nahnu mustahziun bu ñu demee ci seen gaaya wax leen ne leen ñun ci yéen lañ bokk ñële dañ leen di saboté rek dañ leen di dofloo rek mais ci yéen xaqiqatan lañ bokk kon dañuy def talawun yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne tajidu charra annaasi inda allahi dal wajhayni xadis bi fi saxiix di nga fekk gën a bon ci yàlla mu nekk koo xamante ni borom ñaari faas la yati haulaai bi wajh wa haulaai bi wajh dafay dem ci ñële ak benn façon benn kanam bu jëmee ci ñële yóbbu beneen kanam bu bokkul ak kanam bi mu yoroon kon ku nekk ak ni mu lay dikkee ku nekk ak ni mu lay fréquenté ku nekk ak li mu lay wan loolu bokk na ci jikko yu naafiq yi gën a fës mooy at talawun loolu nag bokkul ak almudaaraat yonente bi alayhi salatu wasallam kaana yudaari nnaas kaana yudaari nnaas ci xadis bi nga xamante ni fi saxiix yonente bi alayhi salatu wasalam istadana alayhi rajul fa adina lahu fa lama raahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal bisa axul ashira fa adanu lahu yonente bi alayhi salatu wasalam benn waay mës na sàkku ngir mu recevoir ko bi mu ko séenee ne waajure ku bon la mu ŋàññ ko wax ci moom daldi ne bàyyi leen ko mu agsi bi mu ñëwee toog yonente bi alayhi salatu wasalam wax ak moom kaf moom reetaan ak moom bi mu demee aïcha radiallahu anha jaaxle ne ko ya rasulallah lamma raayta rajul qulta fihi kada wa kada wa lamma jalasta tabasatta lahu wan basatta ilayhi waa ji bi nga ko gisee am na loo wax ci moom bi mu toogee nga ubbi sa kanam yaatal sa kanam waxtaan ak moom mun ne ko inna charra annaasi inda allah yowma alqiyama man tarakahu nnaas aw man hajarahu nnaas ittiqaa charrihi yaa Aïcha mata ahidtini faaxichan mu ne ko yow Aïcha kañ nga ma xam ma nekk ku bon nekk ku ñàkk kersa ki gën a bon ci nit ñi mooy koo xam nit ñi dañ lay daw di la bàyyi ngir mucc ci sa aw ay kon naxante ak nit ñi lu baax la loolu li muy tekki mooy ne léeg-léeg ay nit dinañ xaw a ñaaw jikko ñaaw doxalin ngay naxante ak ñoom di jëflante ak ñoom ngir maîtriser leen mucc tamit ci seen ay naxante boobu ngay naxante ak ñoom loolu nekk nekkul nifaaq bokkul ak li ñuy wax nii li ñuy wax nii mooy koo xam ne li muy def xam na ko bu baax bu demee ci ñële wan leen ne ci ñoom la bokk wane fa lu tax ñu boole ko ci seen biir ci ay jikkoom ak ci ay doxalinam bu fa jógee daal di soppi loolu wane leneen mooy ak talawun kon ñu taxaw foofu ba julli ba noppi wallahu alam wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala wa sahbihi wa man wala ma baad fi ñu ñëmoon mooy min awsaaf al munafiqin bokk na ci mandargay naafeq yi nga xam ne ñëw na ci alquran ak sunna yonent bi alayhi ba léegi li waxoon sànq ci di soppee di soppeeku muy ak talawun soppeeku boo xamante ni bi nit ki dafay soppeeku selon rek nit ñi muy jëflanteel ci moo xam wedd yàlla wala ngëm yàlla subhanahu wa taala loolu min awsaafi nifaq moo tax bi nga xamante ni chia euh, ñoom dañ définir li ñu tuddee at taqiya ñu comme ni ko cheikh lislam taymi rahimahullah di waxee ci minhaju sunna dafay wax ne euh, ibtaanu ad din wa ixfaau ad din wal izhaar diin al fasad wa diin al batil maanaa di nëbb sa diine bañ koo fësal bañ koo feeñal nuroowul ak di wane diine joo xamante ni wérul ñaar yooyu bokkul yàlla subhanahu wa li mu daganal jullit mooy bu fekkee dafa nekk ci yenn anam yi dafa nekk ci bërëb boo xamante ni yéefar ñoo fa ëpp doole bu fësalee diineem ñu lor ko bu fësalee diineem ñu faat ko mën na nëbb diineem mais nëbb sa diine ak fësal diine boo xamante ni bii diine kufur la ñaar bokkul beneen bi ci des mooy talawun bi ñuy wax fii tamit bokkul ak almudaaraat bi ñu doon wax ndax dafa am farq bu am bayn almudaaraat wal mudaahana muy nit ki waddu law tudhinuuna fa yudhinuun mudaahana mooy li nga xamante ni moom la yéefar yi doon bëgg yonte bi alayhi salatu def ko ci wàcc ay principe am bàyyi diineem ñoom ñu bàyyi tuuti ci seen i principe seen diine ñu fekk sente daje jullit bi bàyyi diineem almudaahana mooy nit ki joxe lenn ci sa diine ngir am benn yiw boo xam da nga koy séntu ci sa àdduna alors que al mudaaraat mooy nga joxe lenn ci sa àdduna ngir am yiw boo xam da nga koy séntu ci sa diine wala ci sa diine ak ci sa àdduna yépp kon ñaar yooyu bokkul nit mën na bàcc lenn ci ay principe bu àddunaam ci wàllu àddunaam moo xam ci personnalité am la wala ci ay bienam la ngir am yiw boo xam da koy séntu ci wàllu diineem wala ci diineem ak ci àddunaam loolu mooy al mudaaraat loolu mooy naxante naxante boobu ak talawun bi ñuy wax fii ne naafeq yi moom la ñuy def ñaar yooyu bokkul moo tax comme ni mu ci xadis boo xamante ni fi saxiixayni yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne tajidu charra annaasi inda allahi dal wajhayni alladi yati haulai bi wajh wa wa haulai bi wajh mu di nga fekk ne ki gën a bon ki gën a nekk ku ñu fa yàlla subhanahu wa taala mooy koo xamante ne dafa am ñaari kanam ñii kanam bi la leen di dikkee ñi kanam bi la leen di dikkee mooy ku nekk ak ni nga mel noonu la lay dikkee ni muy dikkee ñëpp yamul beneen bi ci des ci seen mandarga yi ak seen melokaan yi xam ne gën a fës arriya wa suma wal ihtimam bil madahir maa al batin mooy ngistal ak déggtal ci li ñuy jëf ak di woo li feeñ ci kaw al ihtimam bil zahir maa al batin ihtimam bi zahir mu yittewoo sa biti yittewoo li ci kaw loolu lu baax la yonente bi alayhi salatu salaam daf daan yittewoo jëmmam daf daan defaru danaan laal gëtt yu neex dara nekku ci mais na ànd ak rafetuk biir na ànd ak ngëm yàlla na ànd ak ci biir bi tamit nga yittewoo ko moo tax yonente bi alayhi salatu salaam bu musaana seetu gis boppam day wax ne allahuma fa kama ahsanta xalqi fa xassin xuluqi ñaan ñaan boo xam ne dalay wan ne la bu kaw gi rafetee biir bi mit dafa war a rafet daf daan wax ne yàlla subhanahu wa yow sama borom ni nga rafetalee sama jëmm ji na ngeen ni rafetalee sama jikko ndax nit ki nga yittewoo sa kaw ba si kaw ba ku la gis yéem la teg la fenn fi alors que ci biir weddi yàlla moo fa nekk ak kàccoor moo fa nekk lu baax newu fa loolu min awsaafil munaafiqin loolu dafa bokk ci naa ci jikko yi ci mandargay naafeq yi moo tax yàlla subhanahu wa taala doon wax naan wa ida raaytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xushubun musannada yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim muy wax ci naafeq yi ne boo leen gisee seen jëmm yi da lay moo xam ci rëy ndax yittewoo bi ñu yittewoo seen bopp walla ci jëmm ji niñ koy yittewoo di ko toppatoo ba am melokaan boo xamante ni melokaan bu nit ki di respecte ak bu nit di naw lay doon mu ne bu ñuy wax itam dangay dégg seen kàddu bu ñuy wax du ñuy wax ci suuf ci kaw la ñuy wax waxu ndéggatal bëgg gis leen ma ak dégg leen ma loolu min alamatil munafiqin kannahum xushubun musannada alors que ci seen biir ya dara newu fa dañoo vide vide boobu dafa waral ci ñoom ñu mel ne ay matt yoo xam ne da nga koo jël wéer ko ci benn mur mënalul boppam dara dañoo vide intérieurement taxawuñu mais ci kaw moom dinañ ko yittewoo boo leen gisee jox leen benn cër bi jox leen benn jëmm bi loolu amul njariñ nee nañ alimam abu xanifa rahimahullah rahmatan wasia dafa am benn bis mu toog ci jataay benn waay dikk ak sikkim boo xam ne macha allah ak kaala bu rafet ci jëmm ji bi mu ñëwee imam bi bi mu ko gisee dafa daal di bank ay tànkam defaraat toogaayam toog dalal ko ñuy waxtaan waa ji na ko yaa imam إذا حضر وقت المغرب ولم تغرب الشمس ماذا نفعل الإمام أبي حنيفة tàllal ay tànkam mu ne yow imaam bu jant bi soowee bu jant bi soowee te timis jotul nu ñuy def Abu Xanifa tàllalaat ay tànkam ne ko bu ñu nee timis jot na kay mooy jant bi sona ma loolu lim lay won mooy laaj bi mu laaj méngoowul ak jëmm ji ndax jëmm ji boo ko gisee ci kaw da ngay teg ne ki borom xam-xam la kilifa la ci diine mu ñëw di laaj-laaj boo xam ne xale yi jàng ca daara sax xam nañ ko parce que waxtu timis ku nekk xam na ne mi ngi dugg bu jant bi soowee inda ghurubi shams bu leen ci déggee mukk ne dafay laaj laaj bu compliqué boo xam ni mooy kuy dugg dënd dund ci dëkk boo xam ni jant bi mën na toog weer du so wala mën na toog semaine du so loolu beneen xaala la boo xam comme ni ko yonent bi alayhi salatu wasallam waxee ci axiru zaman bu masix dajjal ñëwee yow mu kasana yow mu ko shahr bokkul ak loolu li muy laaj mooy bu jant bi soowee te timis jotul moom loolu lay laaj abu xanifa tàllalat ay tànkam loolu kon mooy wane ne nit ki bu fekkente ni itam dangay nga yittewoo sa jëmm war nga tamit di yittewoo biir bi ci xam-xam ak ci ngëm yàlla subhanahu wa taala ci dundal ko ngir mu méngoo am méngoo boo xam dina ko méngoo sa biir ak sa biti ñu méngoo loolu ni muy nekkee ci jëmm ji noonu la war a nekkee ci jëf yi li ngay wan nit ci biti nit ñi di ko gis ci yow ci ay jaamu yàlla ak ci góor góorlu nga góorgóorlu ba fexe boo làqatoo sa digganteeg sa boroom mu gën a raw mu gën a rafet mu gën a baax mooy ngay gën a rafetal sa jaamu yàlla di gën a am muraqabatullah fi ma baynaka wa bayna allah mais bokk na ci jikko yu gën a bon yi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa gën a bañ ci nit ki mooy nit koo xamante ni bu gisee nit ñi nekk am malaaka bu wéetee fu ko nit ñi gisewul nekk ab kàccoor boo xam ne lu mu jekku rek ci lu mbon ci lu bon def ko loolu du ragal yàlla xaqiqatan loolu nifaaq la parce que loolu day wane nit ki amul dëggug ngëm yàlla ci xolam ndax dëggug ngëm yàlla ci xol nit ki mooy waral mu am muraqabatullah mais bu fekkente nit ki li muy jëf li mu ciy xool mooy doomu aadama yi li mu ciy moytandiku mooy doomu aadama yi doomu aadama yi kersa bi mu am ci ñoom amu ko ci boromam ragal gi mu am ci ñoom ragal amu ko ci boromam loolu min alamati nifaaq ñu defaat foofu beneen mise en garde bu ndaw mooy ne la chaque ne am na ci buntu boobu tamit ay dawabit yu ci am parce bunt bu ñu wax ci bunt yi dafa am ay dawaabit muy nit ki foog mu comprendre ko ci ay règle mooy ne léeg-léeg fex la nit ki euh, mën na nekk kilifa ci diine wala mu am nekk nit ku nit ñi wormaal ba tax am na loo xam ne fi'lan du ko def ci kanamu nit ñi mais bu wéetoon def ko lu mel ne masalan yonent bi alayhi salatu wasalam toog bi mu toogoon aj sëram bi Ousmane duggisee mu delloo sër bi loolu laa shakk ne bu fekkente ne dafa nekk ci biir këram permettre nañ ko mu mën a def loo xam ne bu génnoon ci biti du ko def kon bul jaxase ñaari bunt yooyu bokkuñu léeg-léeg nit ki mën a nekk ci biir këram wala mu wét ñu permettre ko mu def ak oyofal ci loo xamante ni bii bu nekkoon ci kanamu nit ñi du ko def kon bul déggee ci li ñuy wax nii ne kon xalaas xataa su ma nekkoon sa mbir kër su ma defee xam ne mënu ko def ci kanamu nit ñi kon naa fekk laay doon namuñ ci loolu liñ ci namm mooy nit ki li muy wane ci diine ak ci rafetal ak ay jëfam ci ay julleem ay jaamu yàllaam ak defam lu baax ak dëggum ci diineem mu fexe ba li muy nëbb ci digganteem ak boroomam weesu ko fuuf weesu ko benn bis kenn ci jaamukati yàlla ne na alimaam ahmad la dafa mës a dégg ay gaay di waxtaan ci ay julleem yi muy julli guddi ndakate ñoom ñu ngi koy gis muy julli guddi di jooy di julli moom mosul xam foog ne sax ñoom de xam nañ ne day def loolu bis bi ñu bis bi mu déggee ñu koy wax bis boobu lañ ko gëj a gis muy taxaw foofu di julleeti xamatuñu fu mu utati beneen place bu bees boo xam ni fa làqatu di julli abdullah ibn mubarak mës na ànd ak benn waay ci tukki ñu ñu dem ba ci benn bërëb war tëdd nelaw ñu daal di defar seeni bagage teg seen place lépp ba tëdd mu tëdd ak waa ji ba jàpp ne waa ji nelaw na mu jóg ndakate waayam jim mu àndaloon nelawul da ko doon seetlu bi mu jógee jàpp tàmbali di julli di jaamu yàlla ba fajar jot mu mel na ku tiitee ci ay nelaw daal di yee waa ji ne ko fajar jot na nañ jóg julli fekk ne nelawul dafa fanaanee julli guddi gi waaj ji tamit nelawul da ko fanaanee xool waa na ne ko nelawuma bi ko waa ne nelawuma nee na kanam gi dafa changé nee na guddi bëccëg boobu yépp munta siggi xool ma ndax mer bu mu mer ci li ma ko def ndax jaamu yàllaam yooyu mu doon def ci guddi gi buggul woon nit di ko gis dafa bëggoon mu nekk ci digganteem ak boroomam kon nit ki war nga di góor góortim fexe ba li ngay nëbb sa digganteeg sa borom ci ak dëggu ak sellal raw fuuf li nit ñi di gis ci yow mais bu fekkee sa mbaax gépp mi ngi nekk rek ci li nit ñi di gis bu la nit ñi gisatulee xalaas loolu nekkul ngëm yàlla gu dëgg ci xolu nit loolu min alaamati nifaq nasalullah salamatu wal afiya moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna annaas wala yadkuruuna allaha illa qalila bu ñu jógee di jëm ci julli di jëm ci jaamu yàlla tàyyal lañ ci lañ koy defee mais nag comme que nit ñi ngi leen di gis mënuñu ko bañ a def ñu def ko ngir nit ñi maanaa aaya bi loolu lay tekki yuraawuna an-nas ay yusalluna min ajli an-nas nit ñi moo tax ñuy julli moo tax julli yi nga xam ne nit ñi duñu faral di nekk ci mbedd mi nit ñi dañuy dugg seen kër lu mel ne salatul isha ak salatul fajr nga xam ne kenn du ne ci mbedd mi ñu far toog ne léegi jarul may dem jàkka ja que ñoo taxoon ñuy dem loolu mooy kon yuraawuna an-nas wala yadhkuruna allah illa qalila bokk na ci loolu ba léegi mu yittewoo bi ñu yittewoo seen biti neenal biir bi ak ñàkk am sellal ak dëggu ci seen jaamu yàlla bokk na ci yi muy feeñ ba léegi bëgg gu ñu bëgg àdduna ak yittewoo gu ñu yittewoo àdduna ba mu gënal leen mukk fuuf alaxira ab jëf bu ñu ko dee jëf te mën cee am àdduna ci la ñuy gën a sawar ci la ñuy gën a xër ka jëf boo xamante ni ab fayam yàlla subhanahu wa taala leen koy xaare euh, alaxira ab naa fekk moom jëf du ci sonn mukk ngir di ci seentu fayu fayu alaxira bu ëllëgee li muy gën a sawar mooy loo xamante ni bi njariñam lu teew la moo tax bi nga xamante ni yonentu bi alayhi salatu wasalaam génn na dem di jihaad ji fi sabilillah ci lu mel ne xasur tabuuk naafeq yi ànduñoo ak moom ñu uutal daal di toog ngir bañ dem xare ji ak moom ndax jàpp nañ ne noonu bi muy dajal ku am doole la muy ruum te itam jamono jooju naaj bi tàng na mbir mi metti na amuñu ngëm-ngëm ci ne ndimbalu yàlla dina wàcc ndax naafeq amul kóolute ci yàlla subhanahu wa taala ñu toog demuñu bi yonente bi alayhi salatu wasalam ñëwee ñuy ut ay ngant yàlla subhanahu wa taala xamal yonente bi ne ko walaw law kaana aradan qariban wa safaran qasidan la tabauk walakin baudat alayhim shuqqa bu fekkonte ni fi nga jëm njariñ la lu jege lu ñuy séntu loo xam ne dañuy dem rek am ci njariñ li mu ne dañ lay daal di topp bu nekkoon tamit tukki boo xam ne tukki bu jege la mu ne kenn du leen ca jiitu mais dis bi mu dis ak métti bi mu métti te séntuwuñ ca njariñ loo xam ne lu teew la moo tax yàlla jaralu leen ko yàlla jaralu leen ko ba léegi yonente bi alayhi salatu wax tamit ci naafeq yi nga xamante ne bi ñooy bañ a ñëw di teew si ci julli mu wax ci wax joo xamante ne day wane ne ñoom seen i jaamu yàlla xattaa sax buñ ci séentoo njëriñu àdduna ci la ñuy gën a sawar que bu fekkente ni yoolu yàlla rek subhanahu wa taala moom moo ci nekk mu ne walladi nafsi bi yadi laqad hamamtu an amura bi xatabin fa tuxtab wala fa yuxtab ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء Bukhari yonent bi alayhi salatu salaam di wax ci nafiq yi nga xamante ni bu ñu mësaan a nodd julli euh, gée rawatina gée nga xam ne day fekk jamono yooyu surtout nit ñi dañuy teel a dañuy teel a fatu melul ne léegi nga xam ne bu gée jotee nit ñi mel ne ci bëccëg lañ nekk bu julli bu ñu mësaan a nodd julli gée jullit ñi ñëw di julli si ci ci gi di ñëw di julli si ñoom ñu toog seeni i kër duñ ñëw yonent bi alayhi salatu salaam demoon na ba mbébéta dem lakk seen i kër taal seen i borom xam-xam yi ne defu ko ndaxte la chaque ne du ñoom rek ñoo nekk ci kër yooyu am na ñeneen ñu fa nekk ci ay xale ak ay jigéen yoo xam ni ñoom julli farata warul ci ñoom mu ne bu fekkonte ne am na njariñ lu ñu séntu woon donte njariñu àdduna lu na lu néew la lu ñàkk solo la sax mu ne buñ ko séntu woon ci jàkka ji dinañ ñëw teew si julli julli kon bu fekkonte ne am na njariñu àdduna luñ ci séntu woon lu ndaw rek dinañ ñëw julli si gee waaye ba ca loolu amulee yoolu yàlla jaralu leen ñuy ñëw rawatina ci jamono joo xamante nit ñi gisuñu leen ndax lañuy def yàlla taxul ñu koy def nit ñi lañ ciy seet nit ñi lañ ciy sóoraale bokk na ci loolu ba léegi itam al ifsaadu fi l bi daawa al islaax mooy ne dañuy yàq ci kaw suuf ci turu dañuy defar wa ida qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun ne leen bu bu leen yàq ci kaw suuf ñu ne ñoom dañuy yëwoonal dañuy defar maanaam kon bismil al islaax ñoom dañuy yufsidun fi l dañuy yàq seen yàq nag yàq façon yàq yu bari la bokk na ci yàq yi nga xam ne dañ koy def ci kaw suuf mooy ne yamuruna yamuruuna bil munkar wa yanhawna an al maaruf mooy dañuy digle lu bon di tere lu baax loolu bokk na ci seen ifsaad yi nga xam ne naafeq yi dañ koy def yàlla subhanahu wa taala melal leen ci quran ne al munafiquuna wal munafiqat baaduhum min baad mooy ne ñenn ñi ci ñoom ci ñenn lañ bokk al muminuun al muminat daf ne baaduhum awliyaa baad dañoo nekk ay péete ànd ndax yàlla subhanahu wa taala tax mais naafeq yi mu ne dafa mel ne benn jëmm joo xamante ne dafa am ay cër baaduhum min baad ñoom ñëpp benn lañ kiif kiif li ñu naan kiif kiif ñoom ñëpp benn lañ noonu la ko tuddee ndax ànduñu ci kaw dëgg ànduñu ci leen mais ñoom ñëpp benn lañ mu ne dañuy digle lu lu bon ya'muruna bil munkar wa yanhawna anil ma'ruf dañuy digle lu lu lu bon ñaawteef ak caay-caay di tere loo xamante ni njekk la di tere loo xamante ni lu baax la naafeq yi loolu moom mooy seen biir loolu bokk na ci seen ci seen ci seen léegi nag digle lu bon nit est-ce que di nga ko ñëw di ko digal lu bon lu leer na li lu bon la mu koy def ndax bu ñu nee ya'muruna bil ma'ruf bil munkar di nga ne kayf ya'muruna bil munkar idha amaru bil munkar la yuta'un ala hadha al munkar mais ala ghayri suratihi bil munkar ala ghayri suratihi li'annahum yukhadi'una yukhadi'una Allah walladhina amanu ñoom naafeq yi bokk na ci seen i mandarga al mukhada'a mooy dañ lay nax dañ lay tromper duñ la dikkee ci li ñu doon dañu lay dikkee ci beneen anam dañuy ñëw di la digal mbir ci turu ne lii lu baax la fekk ne lu bon la bul dégg rek ni yàlla euh, tuddee seen ndigle loolu ñuy digle ne lu bon la nga jàpp ne dañuy ñëw digal la ko ci turu lu bon bu ñuy ñëw di la ko sant ak di la ci puus di la ca ñaax duñu la ci ñaax ci façon boo xam ne da ngay xamee ne lii lu bon la mais li tax ñu dangereux mooy dañuy nekk ci biir jullit ñi di leen digal lu bon ci façon xelal la ak baaxe la ak laaye biir fekk ne li ñu lay digal lu bon la boo naree jóg jëm ci yiw ak lu baax ñu fexe ba tere la ko ci ay ngant yu ñu lay utal ak ay ragal yu ñu lay ragalloo ak yu ñu lay moytundikuloo ba soo moytu lu baax loolu nga naroon def da nga koy bàyyi. bokk na ci ba léegi tamit at taxakum ila taaxut bokk na ci seen ifsaad fil ard ba léegi mooy ne laa yaqbaluuna xukma allah innama yuriduna taxakum ila taaxut du wax ne nañ ko attewoo muy charullah mais dañuy woo nit ñi di leen jëmale ci ñuy attewoo ak taaxut dañuy woo nit di leen jëmale ci ñuy attewoo ak taaxut yahud yooyu nga xamante ni ñoo ñëwoon ci yonente bi alayhi salatu wasalaam wala ab yahud yi boobu nga xam moo ñëwoon ànd ak ab naafeq ci yonente bi alayhi salatu wasalaam atteloo ko mu atte naafeq bi génn nanguwul atte yonente bi alayhi salatu wasalaam ànd ak moom dem di attewu ci feneen laa yaqbaluuna xukma allah duñ nangoo attewoo jëm ci li nga xamante ni bi moom la yàlla subhanahu wa taala digle nañ ci attewoo muy charullah mais dañuy bëgg dem di attewoo ci loo xam dafa waroo ak charullah alam tara ila alladina yazcumuuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yataxakamu ila altaaguti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu alcheytaanu an yudillahum dalalan baida yàlla subhanahu wa taala azam dañuy woote woo dañuy wane ne gëm nañ li yàlla subhanahu wa taala wàcce ci yow ak li mu wàcce ci li la jiitu ba pare ñu bëgg a wëlbatiku dem di attewoo ci loo xam ne dafa waroo ak li yàlla subhanahu wa taala wàcce te muy ab taaxut kullu ma xaalafa xukma allah fa huwa taaxut bokkaat ci seen ci seen yàq gi nga xam ne dañ ko yàq suuf ba léegi tamit buñ leen woowee jëmale leen ci ñu attewoo ñëw ci atteb yàlla ak atteb yonente bi alayhi salatu wasalaam dañuy bañ leen woowee ci loo xamante ni atte yàlla la ak atte yonent bi alayhi salatu wasalaam dañuy bañ moo tax yàlla subhana taala di wax ne wa ida qila lahum taalaw ila ma anzala allah wa ila rasuli raayta almunafiqina yasudduuna anka sududa buñ leen woowee jëmale leen ci li yàlla wàcce ak ci yonent bi alayhi salatu wasalaam sunnaam ñu tàmbale di dëddu di lànk ngir bañ a topp loolu la bokk na ci seen i mandarga ba léegi tamit assuxriya min ibadillahi salihin kokkali goo xam ne dañ koy kokkali jaamu yàlla yi duñ leen kokkali ci seenuk nite nit ku nekk nit nga kokkali ko ci niteem mais dañ koy kokkali ci seen diine loolu moo tax wasfu boobu wasf mu'tabar la maanaam yasxaruna minhum ala kawnihim maada ibadullahi salihin dañ leen dañuy dañ dañ leen di saboote di leen kokkali ci doon gi ñu doon ay jaami yàlla maanaam nangul gi ñu nangul yàlla di def lu baax ci kaw loolu lañ leen di kokkale kon mel na ni kokkali wuñ leen waaye li ñuy dund la ñuy kokkali di ko di ko di ko di ko di ko di ko doyadal di ko doyadal moo tax yàlla subhanahu wa taala ci aay bi jàlloon fa yasxaruuna minhum saxira allahu minhum mooy ñi nga xamante ne ñi ñëw di joxe seen i sarax ñu leen di saboté di leen ñaawal boo amee lu néew woomaloo ñëw joxe li nga am te yàlla rek tax ñu lay saboté di la ñaawal loolu benn xeet la ci xeeti doyadal ak ñaawal yi nga xam ne koy ñaawal jaamu yàlla yi yàlla subhanahu wa taala ne yàlla doyadal na leen ñoom ñooy ñi yelloo dëgg-dëgg ñu doyadal leen وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء yàlla subhanahu wa taala ne ala innahum hum sufaha walakin la yaalamuun yàlla subhanahu wa taala muy wax ne buñ leen waxee ne gëm leen kama amana annas ay kama amana almuminuun gëm leen comme ñi gëm yàlla ni ñu gëmee xaqiqatul iman qaalu anu'minu kama amana sufaha assufaha yusammuuna almuminin bi sufaha mooy kon dañu gis ne ngëm gi ñu gëm nekk ci seen diine di ci góorgóorlu di ci di ci jaamu seen borom subhanahu wa taala lu ñu leen digal ñu def lu ñu leen tere ñu bàyyi loolu safaaxa la seen doyadik xel moo ko waral ci ñoom maanaam jàpp nañ ne doyadik xel moo waral ci ñoom ñuy góor góorlu ci diine nit ki yàlla sàkk ngir benn jubluwaay ci kaw suuf indi ko fi yebal ci moom ab yonent sant ko mu topp yonent boobu soobu ci lu baax bu ko digalee mu def bu ko teree mu bàyyi muy jaamu rabbu samawati wal ard nga ne dof la parce que dafay jaamu yàlla subhanahu wa taala nga ne dafa gàtt xel parce que dafay taxaw ci li yàlla santaane ayu nifaqin baada hada ndax am na beneen nifaq bu nekkati ci ginnaaw loolu da ngay gis ne lu bari ci mandarga yi nga xam day mandargal diine di ko jëmmal dañ koy saboote lu mel ne yar sikkim dañ koy saboote di ko ñaawal lu mel ne nit ki yëkkati ay yëreem muy rafu thawb yontu bi alayhi salatu wasalam irfa thawbak irfa baatu irfa la jëfandikoo izratul muslim ila ansaafi saaqayhi ila axirihi fama asfala min alkaabayn fa fi nnaar sunna thabita an nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yasxaruuna minha sunna bu sax jóge ci yonente bi alayhi salatu wasallam dañ koy saboté di ko ñaawal hada kulluhu min alamati nifaq xijaab alxijaabu sharci yàlla subhanahu wa taala digal jullit ñu jigéen ñi muur seeni yaram dañ koy saboté di ko ñaawal loolu yëpp min alamati nifaq min anwaai nifaq ndax loolu ñu bañ diine yàlla la subhanahu wa taala joo moo ko wàcc mu nekk waxyu munazzal fi kitaabihi ñu koy saboote boo seet loo dëgg-dëgg xatta l'islam ci jëmmi boppam ci dund ko ak jefe ko lépp dañ koy saboote ñoom naafeq yi dañ koy doye dal boo nee nañ attewoo li yàlla subhanahu wa taala ñu ne terrorisme dañ koy doye dal di ko saboote loolu yépp min min alaamati nifaq wa min anwaai moo tax yàlla subhanahu wa taala ci seen saboote yooyu lenn ci alquran comme ni ko alimaamu tabari waxee ci aaya bi yàlla subhana taala di wax ci suratu tawba la in saaltahum la yaqulanna innama kunna naxuudu wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun alimaamu tabari di wax ne baynama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasiru fi gazwatin aw fi gazwatihi ila tabuk wa bayna yadayhi naasun min almunafiqin fa qaalu undur ila hada arrajul yuridu an yaftaxa qusura alsham wa xusunaha hayhaata hayhaat fa atlaahu llahu wala fa atlaa allahu nabiyahu fa ataahum fa qaal qultum kada wa kada fa qaalu ya nabiy allah innama kunna naxuud wa nalab fa nazalat il aaya yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa génnoon ak jullit yi jëm Tabuk war a jaamarloo ak Ruum ñu amoon ci kattan loo xamante ni lu jéggi woon dayoo la waaye kattanu yàlla subhanahu wa taala moo ko ëpp doole naafeq yi ànd ci biir jullit ci mbooloo jullit ñi li yàlla subhanahu wa taala waxoon ne law xaraju fikum ma zaadukum illa xabaala bu ñu àndee ci jullit ñi seen baña dem sax léeg-léeg mooy gën seen ànd ci jullit ñi ndax bu ñu àndee ci biir jullit ñi yàq la ñuy gën a def ko jariñ yonentu bi alayhi salatu wasallam ànd yi di dem ñu nekk ci biir naan xool leen waa ji nee na dafa bëgg nangu pale yi nga xamante ni bi ñooy pale yi ruumi romain yi la bëgg nangu neen da ko bëgg a xelam sax bu mu ko xalaat mënul nekk di wax di saboote ci beneen riwaaya ñiy wax naan suñu jàngkati alxuraan yi de suñu jàngkati xam-xam yi de mosuñoo gis ñu leen gën a rëy làmmiñ mosuñoo gis tam ñu leen gën a rëy rëy ay biir gën leen gën a mosuñoo gis itam ñu leen gën a ragal bu ñu dajeeg seen i noonu maanaam di saboté sahabatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di saboté yonente bi alayhi salatu wasalaam ci jihaad fi sabilillah muwajahatul muwajahati aadaillah ñuy saboote yàlla subhanahu wa taala wàccee ci ci ñoom alquran qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yàlla subhanahu wa taala wàcce alquran di seede seenu weddi goo xam ne weddi nañ ko yàlla subhanahu wa taala ci wax yooyu nga xamante ni bi wax nañ ko ci kaddu yooyu nga xam ne wax nañ ko te muy kaddu istihza ak suxriya moo tax borom xam-xam yi wax ne al istihza bi cheyin min chaair al islam wa bi cheyin min diin illah baada maarifati baada al ilm bi thubutihi kufrun wa riddatun an te istihza bokk na ci nawaqidul islam yi nga xam ni di saboote ak di doyodal lenn ci diine yàlla te mu sax ci diine yàlla nit ki xam ne lii lu sax la ci diine mu koy doyodal di ko saboote loolu day génne nit ki ci lislaam te bokk na ci nawaqidul islam yi nga xam ni soxlawul iqaamatul xujja soxlawul iqaamatul xujja ndax istihza du am lu dul ci xol boo xamante ni dafa rejeté l'islam nit ki mënta gëm yàlla ba pare wëlbatiku di saboter l'islam loolu mënul nekk saboter l'islam ak doyadal lu bokk ci l'islam ginnaaw bi nga xamee ni lii lu ci bokk la loolu dafa waroo ak ngëm yàlla ci xolu nit ki moo tax kon saboote ak ñaawal loo xam ne lu sax ci l'islam la ginnaaw bu ko nit xamee nag loolu charte la ci ginnaaw bu ko nit xamee xam ne lii lu sax la ci l'islam loolu lu bokk na ci seeni mandarga ba léegi muxaadaatul muminin wal kaydu wa taxtitu diddahum di nax jullit ñi di leen trompe ak di tëral ay plan ak ay mbir di ko nas di ko jëmale ci jullit ñi ci ay lor loolu tamit bokk na ci seeni i mandarga moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax ne yuxaadicuuna allaha walladina amanu wa ma yaxdacuuna illa anfusahum dañuy jéem a nax yàlla di jéem a nax jullit ñi gëm yàlla yarhamkallah di jéem a nax ñi gëm yàlla subhanahu wa taala waaye seen nax yooyu seen kaw rek lay këpp këppuwaat ndax seen bopp la ñuy nax nax googu mi ngi gën a feeñee ci yi ñuy wan jullit ñi ba jullit ñi di leen ci gëm ak liñ leen di nëbbal ci suuf di ko waaj ak di ko pexe ci suuf ñaar yooyu bokkul moo tax kon na naafeq yi ci biir jullit ñi seen mbir lu jara tey la lu jara def ndànk la bokk na ci ba léegi ne ñoom yuriduna ishaat alfaxisha walfitan fi lmuslimin mooy dañuy bëgg di tas fitna ak alfaxisha fi alladina amanu ci façon bu ñu ko mënee moo xam bil fi'l wala bil qawl bil fi'l mooy yaxmilunahum ala alfaxisha ala fi'l alfaxisha ala mumarasati alfaxisha ci jëf bu ñu koy jëf mooy dañuy puus ñi gëm yàlla pour ñuy def lu bon di def lu ñaaw ñaawteef lu lu waroo ak li leen yàlla sant dañuy xër trop ci di bëgg nit ñi di def lu waroo ak leen yàlla sant beneen bi ci des mooy ci wax tamit ci seen làmmiñ chaque fois lu bon rek la ñuy wax ci jullit lu bon rek la ñuy wax ak di ko tas te nañ kenn am aw tuuma wu ndaw wu ko jege ba ñu exploité ko tas ko yàq deram loolu dal na yonente bi solo salatu wasalam xataa moom mucc ci ci soxnaam Aïcha radiallahu anha xaadisatul ifk munaafiquun yi nga xamante ni rawaju li hadihi alxaadisa xata waqaa fi tarwijihim baadu almuslimin baadu gafalat almuslimin seen tarwij biñ tarwij ni ñu coowalee ifk boobu te ñu tuumalaan ci suñu ndey Aïcha xatta ay saxaaba yoo xam ne min asxaabi rasulillah maa kaanu min almunafiqin tàbbi nañ ci piège yu naafiq wax ci ay saxaaba yoo xam ne min asxaabi rasulillah ndax wax ji bëri na exploité nañ ko jaxase nañ ci ay mbir ba yow soo moytuwul même boo waxulee dina am ay jax-jaxal yu nekk ci sa xol ndax nee nañ seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel kon naafiq yi loolu bokk na ci seen i mandarga dañuy gis nit mu yëngatu ci xam-xam di góorgóorlu ci diine nit ñi di jariñu ci moom ñu koy xool di ut lenn luñ ko taqal loo xam ne dañ ko mën a exploité ba yàq deram tilimal ko commencé di wax ci moom wax ju bon seen waa ji de nangam sangam seen waa ji de lii commencé di wax mbir yoo xamante ne bii lu ci bëri du dëgg wala lenn day dellu ci nit ak nit ki parce que nit ku nekk nit rek nga nit ku nekk nit nga xataa yonent bi alayhi ak niteem danaan feeñ ci jëflante yi muy jëflante ak ñi walaw asamahu llah walaw asamahu nafiq yi léeg-léeg yooyu lañ daan exploité ci yonente bi alayhi salatu salaam waaye yàlla chaque fois da leen di toroxal yàlla chaque fois da leen daan toroxal inna alladina yuhibbuuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunya wal axira wallahu yaalamu wa antum la taalamun ba léegi bokk na ci tamit suhulat alxalif almugallaz walxinsu fiihi gaaw gu ñu gaaw a waat ay waat yoo xam ne dañ ciy dogu parce que comme li ñuy wax du dëgg wal kadibu riba yonte bi alayhi salatu wasallam moo waxoon ne al kadibu riba fen da nga koy dégg di ci sikki sàkka nit kuy fen tamit da ngay sikki sàkka ci ay mbiram nit ki bu commencé di fen ba nit ñi xam ci moom fen boo waxee dëgg sax ñu ne moytu leen léegi bu demee ba xam loolu pour mu vide boobu mu xool nu mu ko nu mu ko nu mu ko nu mu ko nu mu ko remplir muy fen yi muy fen ba nit ñi ragal ci moom fen ak itam fen bu ko nit déggee xolam du ko nangu da koy rejeté léegi pour mu appuyer loolu nu muy def dafay jëfandikoo ay wat ay giñ day xool fu mu gën a dëgëree mu commencé di waat foofu hatta ci loo xamante ni bi jarul wat dañuy commencé di wat moo tax bu ñu musaana taxalluf an al qitaali fi sabilillah bu ñu musaana ñàkk génn ànd ak yonentu bi alayhi salatu wasalam dem jihaad fi sabilillah te amaluñ ko ngant lu dul ragal ak bañ a taxaw ci li leen seen borom sant ak bañ a taxaw ci dimbali lislaam moo daan seen sabab waaye lu ñu daan def bu yonente bi musaa na ñëw alayhi salaatu wasalaam dañu ñëw ci jàkka ji tàmbali di waat yaxlifunna billah yaxlifunna lakum ah commencé di di waat ku nekk di waat naan man di dañuy jëfandikoo alxalif ka dañuy jëfandikoo waat comme arme parce que nañ buñ la waatale yow jullit bi nga gëm leen mais waat yooyu yëpp ci kaw ay fen lay tegu waat yooyu yëpp ci kaw ay fan lay tegu waat ñeme gin ak waat yooyu ak waat yoo xamante ni bi teguwul ci kaw dëgg ci kaw ay fen lay tegu mais ki da koy jëfandikoo comme arme pour bëgg ki muy waxal gëm ko loolu bokk na min sifaatil munafiqin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yaxrujun qul la tuqsimu taatun maarufa inna allaha xabirun bima taamaluun wa aqsamu billahi jahda aymanihim jahda aymanihim seen kéemtalaay ngiñ la ñuy waat waatuñu rek wat boo xamante ni waat la ñuy simple mais dañuy xool fa waat gën a dëgëree ñu waat fa ne bu leen yonente bi alayhi salatu wasallam dinañ ko topp yonente bi alayhi salatu wasallam su ma leen digalee di ngeen ko topp loolu koy jarul waat qul laa tuqsimu taatun maarufa topp boo xam ne topp gu rafet la bu la digalee nga daal dina coowu tegu ca loolu lu yomb la lu yomb xam itam la jarul nekk di waat ñi nekk ci wetu yonente bi alayhi salatu wasallam saxaaba yi nekk ñu gëm yàlla ñu ngi koy def di ci taxaw bu leen yonent bu leen yàlla ak yonentam alayhi salatu salaam digalee ñu def ko waaye loolu jarul ay waat waaye ba mu nekkul lu dëggu ci ñoom nga xam ne li ñuy wax nekkul lu dëggu ci ñoom loolu moo waral ci ñoom ñuy jëfandikoo arme boobu di waat ngir convaincre ko ki ñuy waxal donte li ñuy wax nekkul dëgg kon waat googu noonu loolu seen arme la dañ koy jëfandikoo bu baax taatun maarufa borom xam-xam ne dañuy wax ne day dellu ci naafeq yi seen topp gi ñuy topp taatun maaruf ay taatukum maarufa taatukum lillah wa li rasulihi maarufa laa tuqsimu jarul ngeen di wat seen topp gu ñu ngeen di topp yàlla akum yonent tam xam nañ ko an anna taatukum innama hiya faqat fi sirr seen topp ngeen di topp yàlla akum yonent tam ci kaw la rek ci kaw li munta ñàkk ak li nga xam ne day feeñ mais saa bu ngeen làqoo mooy yàlla mooy yonent bi alayhi salatu wasalam moo tax mu ne leen taatun maarufa inna allaha xabirun bima taamaluun bokk na ci seen mandarga ba léegi karahatuhum lil infaqi fi sabilillah yaani al ashuh wal buxlu wa karahatu l infaq fi sabilillah nay ak bañ di génne seen alal ak seen am-am di ko jëmale ci yoonu yàlla alal bu ñu ko waxee dafa yaatu nit ki xataa gi mu am alalam la parce que bu fekkee ki am poosam poosam la mais ki am alalam alalam la am ki am dooleem dooleem la am ki am xelam mu rafet ak xam xam-xamam la am ñoom ñëpp ku ci nekk da nga war a génne di joxe ci yoonu yàlla génne di joxe ci yoonu yàlla yemul rek ci kiy denc xaalis ci poosam mais ñoom ñëpp dañuy génne di joxe ci yoonu yàlla naafeq yi bokk na seen i mandarga seen loxo duñ ko tàllal di ko jëmale ci yoonu yàlla subhanahu wa taala bañ bu ñu bañ joxe di jëmale ci yoonu yàlla subhanahu wa loolu bokk na ci seen i mandarga yàlla subhanahu wa di wax ne wa ma manaahum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 xasatan ida kanat fi sirr bokkan na ci seen mandarga yi ba léegi tayal gu ñuy tayal ci di taxaw ci jaamu yàlla rawatina bu fekkee jaamu yàlla boobu dafa nekk ci façon boo xam ne façon bu discret la bu nëbbatu la nit ñi duñ ko gis ci lañ ciy gën a tàyyeelati encore bu fekkee nit ñi ñu ngi leen di gis dinañ tàyyeel ci kaw dinañ tàyyeel gaa ci seen biir mais ci kaw dinañ góorgóorlu ba taxaw ci jaamu yàlla bi dinañ góorgóorlu ba ñëw julli ci jàkka ji dinañ góorgóorlu ba def nit ñi di def parce que mënuñu koo bañ a def donte ak tayel lañ koy ànde donte ak tayel lañ koy defee mais bu fekkente ni jaamu yàlla bi nag jaamu yàlla la boo xamante ne bi moom ah seen diggante seen borom la ni ñi gisuñu leen soo moytuwul sax duñ ko def wala buñ koy def dañ koy def ci anam boo xam ne anam bu bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw la inna almunafiqina yuxaadicuuna allah wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila alsalaati qaamu kusaala yuraauuna annaas dañuy nax yàlla bu ñuy jaamu yàlla di jóg di jëm ci julli wala ci leneen lu mu mën a doon dinañ dem ndax nit ñi ñu ngi leen di gis mënuñoo bañ a dem defi ji ko waaye lañ la ca yàlla subhanahu wa am lu néew la moo tax mun a yuraawuna naas la ñuy def dañ koy def ndax mënuñu koo ko a def ndax nit ñi mais yàlla subhanahu wa taala taxul ñu koy def ndax ak tayal ci jaamu yàlla moo nekk si ñoom moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ne athqalu salaati ala almunafiqina salaatu al ishaai wa salaatu al fajr walaw yaalamuuna ma fihima la atawhuma walaw xabwa yonente bi alayhi salatu salaam di wax ne athqalu salaati ala almunafiqina salaatu lisha wa salaatu alfajr mu ne julli bi gën a tar bi gën a diis ci naafeq yi mooy julli isha mooy julli gee ak julli fajar mu ne moo gën a tar ci naafeq yi borom xam-xam yi wax nañ ci sabab ci sirr bi nga xam ne moo tax mu nekk athqalu salaati ala almunafiqin mooy li tax mu gën a nekk lu diis ci ñoom mooy ne julli la goo xam ne heure bi ñu koy def day fekk suuf sedd nit ki day bëgg a noppalu benn ñaareel ba tamit mooy julli la goo xamante ni bii gëm yàlla mooy tax nit ki teew ko nit ñi duñ la gis ndax booy ñëw ci jàkka ji di julli si gee nit ñi duñ la gis ndax heure boobu day fekk nit ñi fatu fajar moom waxi noppi kenn du nekk ci mbedd mi comme que nit ñi ñoo taxoon ngay bañ a ngay dem jàkka ja mënoo bañ a teew ndax nit ñi léegi nit ñu gisoo leen lekkoon nga ne naa toog moo tax yonent bi alayhi salatu wasallam ne athqalu salati ala munafiqin al isha wal fajr ba léegi tamit ci julli bu ñu demee ba koy def ci mënuñu koo bañ a def li ko yàlla subhanahu wa taala waxee ne wala yadkuruna allah illa qalila mooy taqsir boobu ñu taqsir ci zikrullah ci gàttañlu bi ñuy gàttañlu ci zikrullah mooy ci def ko ci anam bi nga xam ne moo taxoon julli jóg ndax nit ki da cee war a jariñu ñoom bu ñu ko defee noonu dañ koy def defu naa ko def te génn ci mooy mënuma ko bañ a def kon naa ko def te génn ci noonu lañ koy defee moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam ne tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salaatul munaafiq ñetti yoon mu ne yarqubu shamsa xatta kaanat bayna qarnay shaytaan qaama fa naqaraha arbaan laa yadkuru allaha taala fiha illa qalila alxadis fi saxi muslim yonent bi alayhi salatu wasalam ne jullik naa feq ngoog jullik naa feq ngoog jullik naa feq ngoog ñetti yoon mu ne loolu mooy julli naa feq ñëpp di déglu parce que waxin la uslub la ci façon waxin boo xam ne dafay attirer sa attention bu waxee ne loolu julli naa fekk la yow mi ko dégg da ngay bëgg a déglu façon julli ba ban julli la mu ne dafay toog di observer jant bi mel na kuy surveiller jant bi ba muy waaj a so wala ba muy waaj a fenk ndax jant bi buy so ak buy fenk yépp dafay fenk ci diggante ñaari bëjjëni seytaane buy so dafay so ci diggante ñaari bëjjëni seytaane xatta kaanat bayna qarnay shaytaan loolu day nekk ci julli fajar ak ci julli maada ak timis mais ban julli mooy julli boo xamante ni boo ko xaaree boo ko xaaree ba jant bi nekk bayna qarnay shaytaan qad kitta an tuxrijaha an waqtiha mooy salaatu al asr ban julli mooy julli boo xamante ni boo toogee ba jant bi di waaj a so nga julli ko def nga lu bon mooy julli asr kon julli asr la dul julli di ko xaar di ko xaare di ko xaare ba jant bi di waaj a so mu soog a julli ko muy julli julli euh, tàkkusaan bi ñu doon julli loolu kinaaya la muy waxin la ci yéex gu ñuy yéex a julli yéex gu ñuy yéex a taxaw ci jaamu yàlla naka noonu julli fajar di ko yéexe ba jant bi di waaj fenk nga jug julli ko na naka la koy jullee mu ne yan quruha kama fi baad al hadith naqara da koy cof comme cofu cofu ginaar la koy cof maanaam julli bi sëgg siggi sëgg siggi sëgg siggi mu julli daal di ciy génn mooy li ñu doon wax sànq ndax mënu koo ñàkk def kon du ko def ci waxtu wi ñu ko ko sant da koy yéexe loolu yépp di wane tayyel ak doydal gu mu doydal julli bi benn ñaareel bi ci des tamit wala yadkuruna allaha illa qalila muy gàttañ lu gu muy gàttañ lu ci jëf yi nga xamante ni moom la war a jëf ci julleem ak ci rafetal ak ci matal bokk na ci seen i mandarga ba léegi aydan alxawfu shadid wa maddul alsun xaalat al amn mooy ragal ragal goo xam ne aljubn wal xawar muy ragal ak tàppet goo xam ne dafay nekk ci naafiq ànd ak tamit rëy làmmiñ ak wax ju bëri bu nekkee ci jamono joo xamante ni dañu nekk en paix en sécurité wax ju bëri joo xamante ni da nga naan kii moom mooy jàmbaar boo xam ne moom bis buñ jaamaar la woon ak noonu lislaam moom moo raw Xaalid ibnu Walid fekk ne ab ragal la boo xam ne la yàlla xam euh, doy na ashihatan ashihatan aleykum fa ida jaa alxawfu yàlla subhana taala mi ngi wax ci naafeq yi ba ci biir wax ci ci beneen aaya bi mu ne ashihatan aleykum muy wax ne yooyu ñuy def dañ koy def ngir keñaan gu ñu am ci yéen yéenewuñ leen lu baax yéenewuñ leen lu baax ashihatan aleykum mu ne loolu yëpp dañ koy def ndax yéenewuñ leen lu baax mu ne nag fa ida jaa alxawfu raaytahum yanduruuna ilayk taduuru ayunuhum kalladi yuxsha alayhi min al mawt mu ne bu ñu demee nag ci jamono joo xamante ni jamono yi ragal la ragal euh, wala bokk ak lu war a ragal loo nit ñi ñëw na fa ida jaa al xawfu ay maa yuxaafu minhu maa yuxawifukum su fekkente ni ak tiit ñëw na loo xamante ni warees warees la cee mën a tiitee du caagante ni su ak tiit ñëw na mooy loo xam ne yéen ñëpp tiit ngeen ndax yonente bi alayhi salatu salaam lay waxal mais lim ci nam alxawfu mooy loo xam ne dañ ciy tiite maa sabab la ci tiit mooy kon noonu yi ñëw nañ ndax noonu yi ñëw présenté wu sabab la ci ñu war a mën a tiit mais est ce que day tekke ne jullit ñi dañoo tiit kon ida jaal xawf mooy loo xamante ne da ngeen cee war a mën a tiitee ñëw na mu ne dañ leen di gis ñu lay xool taduru ayunuhum kalladi yursha alayhi min al mawt mu ne seeni bët di war a warangiku di wëlbatiku am na ñu ne seen i bët di war ko di wëlbatiku mooy fu ne ñu fay xool di niis niis di xulli fu ne ñu fay xool mel ne koo xamante ni bi dafa perte connaissance am di waaja dee kalladi yuxsha alayhi min al mawt mel na koo xam dafa nekk ci xëm ak xëmmaliku ndax mu ngi sukkuraat di waaj a génn àdduna ci xaala boobu muy nekk ñoom ragal gu metti dina tax ñu nekk ci anam boobu mooy dootuñu ànd ak seen i conscience fu ne ñu fay xulli seen i bët di xool ñenn ñi ne seen i bët ni muy mel dafay ñuroog bëtu kuy faatu ndax kuy faatu ni bët bi di wëlbatikoo warangiku mel ne lu ñu wëlbati noonu la seeni bët di mel ndax tiit gu ñuy tiit kon dafa mel ne tashbih bi ñenn dañuy wax ne ci xaala bi la ñenn ñi tashbih bi ci bët yi la ci xoolin bi loolu yëpp day wane seenu ragal <coughs> mu ne fa ida dahaba alxawfu salaquukum bi alsinatin xidaadin ashixatan ala alxayr ulaika lam yuminu fa axbata allahu amalahum bu mbir moomu njaqare googu demee ñu del si yor seeni làmmiñ nag tàmbali lu ne wax ko ñu daal di tàmbali lu ne wax ko ngir lan ngir xëccoo ak buuxante ci yiw wi nga xamante ne yàlla defal na leen ko ndax bu fekkee jullit ñi daje nañu seen i noonu ñu ragal wane ak tiit bu yàlla defalee jullit ñi ndam ñu am lu ñu ca jëlee ci ngañaay ñu ñoo ñëw nag dikk nag bëgg kenn du leen ëppale te lépp ñu ngi ko bëgg a lijjante ñu ngi ko bëgg fajee ci làmmiñ wu rëy loolu bokk na ci alaamatul nifaq ci mandarga yi munafiqin yàlla subhanahu wa taala di jëkk ci delluwaat ci quran ne yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim lu jub ñu yaakaar ni seen kaw la jëm loolu yépp li ko waral ci ñoom mooy seenu ragal ndax nit ki boo nekkee ci ak mu mënoo cee boole am fit fokk dangay nekk ku ragal ka annahum xushubun musannada dañoo am vidd bu nekk ci ñoom boo xam ne mooy waral ci ñoom ñu ragal bokk na ci ñoom ba ci mandarga yooyu ba léegi al faraxu bi intisaari al kuffaar wal wal wal istiyaau wal istiyaau ay yasuuhum intisaaru ahli l islam am mbégte seen i mandarga bokk na ci am lu leen neex bu fekkente ni noonu yàlla yi am nañ ngañaay ci kaw jullit ñi am nañ benn euh, mbir boo xamante ni xëy na euh, du moor sax ngañaay la parce que yéefar mënut a gañe jullit abadan comme ni ko ibn ibn taymi rahimahullah doon waxee nee na yi mën a luñ ma dara samay noon mën a luñ ma dara ndax buñ ma reyee rey boobu ab texe la suñ ma tëjee ma mën a wét fàttaliku sama diine settantalaat kemtaanu yàlla yi dellowaat sama xel ci sama boroom jàngaat alxuraan suñ ma génnee sama dëkk daal di may sànni ci àll bi mu ne boo ko defee ma wër ci kaw suuf comme ni ko yàlla diglee ne nañ dem ci kaw suuf xool mandarga ak kéemtaan yàlla yi subhanahu wa taala kon mënaluñ ma dara buñ ma bàyyee nag ma nekk ci sama jàmm ak salaam kon yëfar mënta am nasr lu ñu tuddee nasr ci kaw jullit yi mais bu fekkente ne am nañ lenn loo xam ne luñ mën a tuddee ndam la ñu am ko ci jullit yi naafiq yi dañ daal kontaan bu fekkente ne metti leen lool loolu bokk na tamit ci seen i mandarga moo tax yàlla subhana taala wax ne in tusibaka xasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad axadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farixuun wa yatawallaw wa hum farixuun mu ne bu fekkente ni dafa am lu baax lu la dal loo am da leen di métti du leen neex yonentu bi alayhi salatu wasalaam bu fekkente ni am na aw tiis wu tegu sa kaw ñu kontaan léegi bu ñu kontaanee lu ñuy wax dañ naan dañuy daal di wane ginnaaw dem seen yoon fekk na ñu ngi kontaan dañ naan bu ñu déggaloon lii du ko dal loolu la ñuy wax bu bu yonente bi alayhi salatu wasallam musaan ànd ak jullit ñi dem jihaati ji fi sabilillah dara dal leen li ñuy wax alhamdulilah bañ ci bokkulee ba musiba bi mu ñëw fekkuñu ci bu ñu dafa dëgër bopp bu ñu déggaloon lii du ko dal du ko dal dem fekk na ñoom ñu ngi kontaan seen xoli sedd na guy ndax yéenewuñ jullit ñi jàmm bokk na ci ba léegi xasaduhum lil muminin al multasimina bi charillah yaxsudunahum ala ma ataahum allahu min min xayr wa min fadl dañu am keñaan gu ñuy am ci xéewal gi yàlla subhanahu di defal ay jaamam yi nga xam ne ñoo koy topp di tënku ci diineem dañ leen di iñaane ci loolu yéena wuñ leen du baax yàlla subhanahu wa taala di wax ne wa ida laqukum qalu amanna wa ida xalaw addu alaykum al anamila min al gayr qul muutu bi gayrikum buñ leen gisee di leen wan ne gëm nañ ñun ak yéen ñoo ànd alors yéen rek lañ bañ yéen rek lañ bañ saa bu ñu làqoo tàmbali di màtt seen i baaraam ndax iñaan ak soxor goo xamante ne am nañ ko ci yéen yàlla subhanahu wa taala di wax ne dee leen ak seen soxor googu dee leen ak seen iñaan googu ne leen seen iñaan googu rey mooy du ñu wàññi dara inna allaha alimun bi dati sudur in tamsaskum xasanatun tusuhum boo fekkente ni am na lu baax lu leen dal du leen neex ñoom naa feq yi comme ni mu ko waxoon ci yonente bi alayhi salatu wasalam rek dañuy am lu leen metti ci jullit ñi am lu baax ko mënuñu koo supporter wa atun tusibukum sayiatun bi biha bu ñu amee aw naqar woo xam ne dal na leen ñu yëg ko ñu daal di ciy am lu leen neex lool kontaan ca tàmbali di ko yëgle fu nekk di ko tasaare di wax naan gaaye day dañ fañ demoon dañ leen faa dóor ba ñuy bëgg a dee <coughs> bokk na ci seen mandarga yi ba léegi al irad an al al i'rad an al istighfar mooy ne ay nit lañ yoo xam ne laa yastaghfirun seenu tooñ gu ñu tooñ ak seenu gàttañ lu bu ñu gàttañ lu ba loolu waral ci ñoom ñii tuub di jéggalu seen borom subhanahu wa taala wa ida qila lahum taalaw yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ruusahum buñ leen waxaan ñëw leen yonente yàlla bi subhanahu wa taala leen muhammad alayhi salatu wasalaam nga am chance bu toll ñu wax la ne yonentu yàlla rasulullah yastaghfir lak dañuy daal di dëngal seen i loos njett seeni loos daal di wëlbatiku dem du ñu ñëw wuyu si ci loolu ñu leen wax wa ida qila lahum taalaw yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ruusahum wax raaytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun lu mu ñuy jéggalu lu ñu def ba mu ñuy jéggalul lan lañ def ba mu ñuy jéggalul maanaam yëguñu seenu tooñ ndax rëy rëylu goo xam ne dañ koy rëy rëylu ndax chaque fois li ñuy wane ci kaw du ñu bëgg lenn lu koy xajamal wala lenn lu koy taqal wala di wan nit ñi seen mbir duñ ko bëgg ba tax na duñu duñu tuub ñu jéggalu moo tax Abdullah ibn Mas'ud di wax ne almuminu yara danbahu kaljabal yaxaafu an yaqa alayh walmunafiqu yara danbahu ka dubab waqaa ala anfihi fa qaala bihi hakada mu ne ku gëm yàlla dafay gis ay bàkkaaram mu mel ne aw montagne mel ne aw doj wu rëy wu ko tiim woo xam ni dafay tiit dafay dafay tiit mu dal mu dal ci kawam mu daanu ci kawam ku gëm yàlla dafay gëm ne gis ne moom ku bëri ay bàkkaar la di jéggalu fu mu toll yonente bi alayhi salatu salaam innahu la yugaanu ala qalbi wa inni la astagfirullah fi lyawmi miata marra ci yenn riwaayat mu ne wa inni la astagfirullah fi lyawmi sabina marra muhammad alayhi salatu salaam gufira lahu ma taqaddam min danbihi wa ma taaxar yàlla subhana taala jéggal na ko lu jiitu ci ay bàkkaaram ak lu mujj muy tuub di jéggalu di dellu ci boromam ci bis bi téeméeri yoon ñoom duñu te duñu tuub duñu duñu du ñu duñu duñu duñu def istighfar duñu jéggalu seen borom subhanahu wa taala ñu jéggalu seen borom subhanahu wa taala bu ñu leen waxee kaay leen jéggalu seen borom ñu bañ Abdullah bin Mas'ud mu ne jullit bi gëm yàlla dafay gis ay bàkkaaram mu nekk lu bari lool ci kanamam mu gis la ku gàttañ la digganteem ak boromam muy jéggalu fu mu toll di tiit ay bàkkaaram alak ko waaye mu ne naafeq bi ak li muy bari bari bàkkaar yépp day xeeb ay bàkkaaram day ay bàkkaaram comme benn bu naaw dal ci sa bakkan nga dàq ko weñ bu naaw dal ci sa bakkan nga dàq ko ni nga koy ñàkkalee fayda noonu def ko ni mu jàll ñoom seeni i bakkaar noonu lañ ko jàppee noonu lañ ko ñàkkalee fayda nga xam ne boo ko defee ni dàq ko bu rombee fàtte nga ko mu ne naafeq yi noonu lañ jàppee seeni i bakkaar bokk na ci seeni màndarga ba léegi qillatu dhikru dhikrihim lillah qillatu dhikrihim lillah mooy néew gu ñu néew di tudd yàlla naafeq yi laa yadkuruna allah yàlla subhanahu wa taala comme ni ko waxee wala yadkuruna allah illa qalila naa fekk duñu duñu duñu duñu tudd yàlla duñu fàttaliku yàlla tamit parce que zikrullah dafa nekk comme fàttaliku yàlla di delloo sa xel ci sa borom loolu di la ñaax ci ngay taxaw ci ay santaaneem di moytundi ko ay tereem ak tamit zikrullah bi nga xamante ni mooy di tudd yàlla subhanahu wa taala ci salaam mi nafeq yi ñu gàttañu lañ ci loolu duñ ci taxaw duñ taxaw ci loolu istahwada alayhim shaytan fa ansaahum zikrallah sheytaane moo leen ndar képp ëpp leen doole fàtteloo leen tudd yàlla subhanahu wa taala fàttaloo leen yàlla subhanahu wa taala <coughs> bokk na ci seen màndarga yooyu ba léegi tamaahum shadid wa adamu qanaatihim bi risqillah bëgge gu ñu bëgge ak foqale bu ñu foqale ak ñàkk bu ñàkk doyloo xéewalu yàlla subhanahu wa taala lu leen yàlla jox ñu xeeb ko yonente bi alayhi salatu salaam daf daan am xéewal gu ko dikkal mu mu séddale ko ci jullit ñi naa fekk yi commencé di wax loolu la ñu wax ko comme ci joxul nga commencé génn di kaas waaw joxuma dafa gënale ay mbokkam lii moo tax lii séddale na benn bis benn waaye ne haadihi qismatun ma urida biha wajhullah mës na séddale benn alal ju ko dikkaloon mu séddale ko jox ko ay jullit benn waaye ne séddale bi ñu séddale day ki ko def na mu ci yàlla yàlla taxul mu def ko maanaam yonente bi alayhi salatu wasalam lay tuumal léegi yàlla subhanahu wa taala yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko ndax du ngeen ma wóolu te man la ki nekk ci asamaan yi wóolu yàlla wóolu ma xattaa ci risalaam bi jox ma ko ngir ma jottali ko nit ñi mu wóolu ci loolu yéen bu bu ngeen ma wóolootul ku ngeen di wóolu bu ngeen ma wóolootul ku ngeen di wóolu yonent bi alayhi salaatu salaam wax loolu bu leen joxaat ñu kontaan te sax kum ci jox te lim la jox bariwul boo génnee da ngay commencé di xeeb naan mënoon na maa jox lu ëpp lii ndax ba gaa yi dajee def naa fa lii ak lii fekk ne ba matul ba ñuy dajee sax demul ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون bokk na ci ba léegi adamu fahmihim lil quran wa adamu tadabburihim li maani al quran bokk na ci seen i mandarga ba léegi tamit mooy qillatu fahmihim wa adamu fahmihim lil quran wa adamu tadabburihim lil quran mooy xam-xam mënut a dugg seen bopp yi xam-xamu alquran leeruk alquran wa anna al ilma nuurun wa nuurullahi la yuta li aasi xam-xam dégg alquran mënut mënut dugg ci seen dënn yi mënuñu settantal alquran loolu bokk na ci mandargay naafeq yi naafeq mën na di jàng alquran mais du ci jariñu yatadahar di di jël alquran di jàng comme na ko cheikh lislam bi taymiya rahimahullah waxee mu ne inna min almunafiqina man yusaddiqu annahu kalaam allahi wa kalaam annahu kalaamu allahi wa annahu wa annahu kalaamu rasulihi wa anna rasula xaq wala yakunu mu'mina mu ne am na ci naafiq yi ñoo xam ni dañuy dëgg ne alxuraan yàlla moo ko wàcce gëm na itam yonente bi alayhi salatu wasallam yàlla moo ko yebal mu ne tax mu nekk gëm yàlla ndax xam boobu mu ko xam ci xam ne lii yàlla moo ko wàcce waxu yàlla la yonent bi dëgg la te àndut ak ngëm gu wér péng loolu du leen jariñ mu ne comme yahudi yi xam nañ ni yonente bi alayhi salatu wasallam dëgg la comme ni ñu xamee seeni doom te jariñu leen mu ne naafeq yi tamit même chose xam-xam boobu ñu ko xam jariñu leen Abu Talib xamoon na ne yontu bi alayhi salatu wasallam rasulullah jaa bi diin al xaq mais bi mu gëmul yàlla ñàkk xam boobu mu xamoon loolu réalité boobu mu xam ko sikki sàkkawul woon ci loolu xamoon na ni kii yàllaa ko yebal mais ñàkk bi mu ko ñàkk gëm moo tax loolu jariñu ko woon dara naafeq yi tamit même chose moo tax cheikh lislam taymi rahimahullah di wax foofu ne kama anna alyahuda yarifunahu kama yarifuna abnaahum wa laysu bi muminin wa kadalika iblis wa firaun wa gayruhuma mu ne iblis xam na yàlla bu baax xam na dëgg xam na ko bu wér peng mais jariñu ko mooy ki gën a bon ci jaamu yàlla yi naka noonu mu ne firaun xamoon na ni li Moussa indi dëgg la mais ba mu ko dëggalulee la ko jariñulee mu ne lakin man kaana kadalika lam yakun xasala lahu alilmu tam walmaarifatu tamma fa inna dalika yastalzimu alamala bi mujibihi la mahala mu ne waaye xam-xam boobu du la jariñ mu ne xam-xam boobu nekkul xam-xam bu wér bu lay jariñ ndax xam-xam bii jariñaate dëgg mooy boo xam ne day waral ci yow nga jëf li nga xam nga jëf li nga xam naafeq yi bi nga xamante ni bii xam nañ ne alxuraan yàlla moo ko wàcce te ñoom taxawewuñ ko ci jëfe ko gëmuñu ko gëmin bu wér taxaw ci ci jëfe ko ci liñ leen sant ñu ne ca moo tax mënu leen a jariñ mën na yittewoo xam-xam yittewoo alxuraan di ci jàng mais du ko jariñ du àgg ci xol bi moo tax yàlla subhanahu wa taala di wax yonent bi alayhi salatu ne ko wa minhum man yastami'u ilayk am na ci naafeq yi ñoo xam ne booy wax dañ naan jot toog di la déglu dañuy ñëw ci jotaay yonente bi alayhi salatu wasallam di waxee ñu lay déglu hatta ida xaraju min indik qaalu lilladina utul ilma maada qaala anifa bu ñu génnee delluwaat ci ñi yàlla jox xam yàlla jox xam-xam mooy ñan ñoom bu ñu dégloo nga wax ba pare bu ñu génnee delluwaat ci ñu yàlla jox xam-xam muy saxaaba yi daan ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasallam di jàng ak di taataan xam-xam pour am lu ñu jariñoo jëfe ko ci seen bopp yar ci seen i njaboot ndax ñun dañ daan jàng xam-xam ak jëf saxaaba yi radiallahu anhum ci yonente bi alayhi salatu wasalam naafeq yañ daan di ñëw déglu ngir am lu ñu nettali ji waa ji de tey waxati na lii ak lii ak lii ak lii buñ toogee ci yonente bi alayhi salatu wasalam di wax li muy wax day dugg fii génn fii bu ñu génnee di laajaat gars yi naan waa lu mu waxoon léegi lu mu waxati woon sax mënuñu koo jàpp ndax dégg-dégg bi àggul ci seen i xol àggul ci seen i xol kon naafeq yi bokk na ci seen i mandarga adamu fahmihim lil quran bokk na ci ba léegi te mooy mandarga bu mujj te mooy bi gën a fës daanaka mën nañu wax mooy naafeq ci boppam mooy définition wu nifaaq mooy seenug biir ak seenug biti yamul naafeq biiram ak bitam yamul loolu ci bunt yépp loolu mën nga cee wax lu neex loolu mooy tëj awsaaf ñu waxoon yépp mooy naafeq biiram ak bitam yamul loolu bokk nañ ci seen i mandarga boo jëflanteeg moom di nga xam ne li nekk ci kaw ak li muy feeñ li muy feeñal ak li muy wane ak dëgg-dëgg li nekk ci biiram yamul loolu bokk na ci mandargay naafeq yi comme ni ñu ko jàllee woon ci yeneen yi nga xam ñoo jiitu ci gàttal comme waxtu wi xëy na ñu ngi commencé di gudd ñu wax ci lenn ci jëflante ak naafeq bi nga xamante ni jullit bi war na jëflante ak naafeq ci doxalin ak njàngale yonte bi alayhi salatu wasalaam ci jamono léegi loolu bu ñu ciy wax dinañ wax ci benn mise en garde bu ndaw benn muqaddima bu ndaw tamhid mooy atte ne nit naafeq la nit ki waru cee gaawantu gisee ci nit ay màndarga yoo xam ne dafay mandargal naafeq mën na koo jàppee ne kii jëfu naafeq la mais warul wax ne kii naafeq la maanaam jëfu naafeq la loolu kon mooy tàbbi na ci nifaaq loolu lañ tuddee an nifaaqul amali muy naafeq gu ndaw gi ñu doon wax sànq nga xam nit ki mën na cee tàbbi te du tere mu nekk yàlla waaye atte nit nag nii ku ab naafeq la bu wér peng bu naafeq xaalis la boo xam ne moom léegi damay appliquer ci moom règle yii nii nga xam ne damay jëflanteeg moom ci base ne naafeq la fi'lan loolu moom julit waru cee gaawtu ndax yontu bi alayhi salatu wasallam daf wax naan dañ maa digal ma jëflante ak nit ñi selon liñ may wan ma jëflante ak nit ñi ak li feeñ ci kaw doon wax tamit naan halla shaqaqta an qalbihi ndax yow yaa xar xolam ñu ko wax Usaama loolu yépp li mu ci namoon mooy pour tëj buntu boobu benn bis benn waay ñëw na di ko muy Xaalid ibn Walid di ko ñaan autorisation ci rey benn naafeq yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko innahu yusalli mu ne ko kam min musallin yaqulu bi yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi wa xaalit ne ko bari na kuy julli koo xamante ni li muy wax ci làmmiñam nekkul ci xolam yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko kenn digalu ma may xotti dënnu nit ñi di xam li ci nekk kon moom dafa tëjoon benn bunt boo xam ne salawatullahi wa salaamuhu alayhi bu ko tijji woon dina indi yàqute bu rëy ci lislaam mooy li mu doon wax naan an laa yataxaddatha annaasu anna muhammadan yaqtulu ashaabahu li mu doon wax naan bugguma nit ñi ne muhammad day rey ay àndandoom àndandoom yooyu mu doon wax ñooñu noonu nekkuñu ci ay àndandoom xaqiqatan nekkuñu ay saxaaba parce que ay munafiqin lañu woon nekkuñu woon sax ay muslimin mais comme nit ñi li ñuy gis ci kaw mooy ne ñu ngi ci biir jullit ñi ànd ak jullit ñi di defandoog ñoom li ñuy defandoog ñoom nit ñi dañ leen di considérer jàppee leen ci saxaabatu rasulillah bu leen doon rey nan ay naafeq lañ di leen rey buntu lay tijji bu dangereux ci ne nit ñi dañuy commencé di wax ne day rey ñi koy topp benn ñaareel bi aussi mooy bu fi jógee fi jógee lan mooy am da ngay gis nit ku xool nit ba mu neex ko rek ko jaasi lan la mu ne naafeq la léegi kan moo ci mun dara léegi moo tax mu teel a tëj buntu boobu pour wane ne atte leen nit ñi ci li ngeen di gis ci kaw am leen ci ñoom rafet njort jàng genre masaayil yu mel nii bu mu tax nga commencé léegi ne ah commencé di xool koo gis mu def dara ñaar nga ni kii kon naa naafeq la léegi naa jël ci moom taxawaay moo tax foog tamit bu ñuy waxtaan ci euh, nifaq wa alamatu nifaq ñu def ay tanbihat ci bunt boobu pour bañ a tasarro ci tatbiq qawaidu ak euh, ahkaamu nifaq ci nit ñi di bañ di gaaw di appliquer ay règle naafeq ci ci kaw nit ñi naan kii naafeq la kon nii laay jëflanteeg moom ak du ma jëflanteeg moom nii liñ gën a jublu ci waxtaan bi mooy nit ku nekk ci sa bopp nga jariñu ci mais bañ jóge fii di dem di tuumaal kenn naafeq loolu lañ gën a jublu ci waxtaan bi mooy tazkiyatu nafs mooy nit ku nekk yar sa bakkan nit ku nekk xoolaat sa bopp defaat autocritique xaasibu anfusakum nga dellowaat sa xel ci sa bopp xoolaat sa bopp boo gisee yenn ci ci melokaan yi ak ci mandarga yoo xam nekkoon na si yow nga jëm ko saafara faj ko dindi ko loo xamante ni yàlla musaloon na la ci nga sant ci yàlla te gën koo moytandiku gën koo moytandiku boo ci mënee jàppale sa mbokk jullit nga jàppale ko si mais jubluwaay bi nekkul nga jóge fi léegi ne kon ay règle la commencé di di di di natt gaa yi di xool kan moo am ak ku amul ak ku nekk naka nga war a jëflante ak moom jullit dafay tuumaal boppam di seetal nit ñi jullit dafay tuumaal boppam di seetal bokk na ci yooyu man ci jëflante yi nga xam ne l'islam ubbi na ko ci euh, digganteem ak naafeq yi mooy qabulu alaniyatihim wa tawkilu sarairihim ila allah mooy nga nangul leen liñ la won seen li ñu nëbb nga delloo ko bàyyi ko ak yàlla li mu la won jëlal loolu nga yem ci noppal sa bopp li nga xam ne moom la nëbb nga jàpp ne loolu yàlla moo ko xam da ngay noppal sa bopp ba pare moo gën a mucc tamit doo dugal sa bopp ci ay aventure yoo xamante ni amaana nga tooñ sa mbokk jullit wala nga bakkaar parce que bis boo commencé di dugg ci li nekk ci nit ki dëgg-dëgg xaqiqatan yaa ngi ubbi bunt bu dangereux ci ne mën nga tooñ sa mbokk jullit ñaareel bi aussi mooy mën nga dugg ci réer réer ndax mën nga àtte ci kaw jullit loo xamante ni tegoo ko ci benn dëgg loolu réer la dalal la moo tax buntu àtte nit ñi ahlu sunnati wal jamaa dañ ci am tawassut tawassut boo xam ni amul ci benn beneen firq muy tatbiqul ahkam ala nnas mooy baabu euh, alxukm ala nnas ñu koy tuddee asmaul ahkam nga xamante ni ñi ci réer firqa bu mel al firqatul euh, al xawaarij ak al mutazila dañ ciy réer réer bu taratar mooy murtakibul al maasi wal kabair ahlu sunnati wal jamaa am ci tawassut boo xamante ni amul ci beneen ci beneen kuréel ci boo jàngee xam ko mooy ni ñi da nga leen di jëflanteeg ñoom ci liy fës ci ak liy feeñal ci kaw bañ di dugg ci seen i ci seen i yéene di ko àtte loolu bokk na ci li koy gën a firndeel yonente bi alayhi salatu wasalam bi ñu doon wax danaan gis naafeq yi ci biir sàppe jullit ñi mu xam leen bu baax ndax yàlla xamaloon na ko naafeq yi mu waxoon seen mbir xatta xudayfa mu xam leen te taxul woon mu leen di génne di leen weer taxul woon salawatullahi wasalaamu alayhim mu leen di génne di leen weer di leen wax ci kanamu nit ñi leen da leen daan bàyyi noppi ci ñoom buñ daan bu daan génn sax di jihaati ji dañuy génn ànd ak moom ku ñëwul woon sax bu la gisee dalay laaj du tax ñëwuloo ndax dalay lay jàppee comme ni mu daan jàppee jullit ñi parce que loolu nga wane mu jàppee la li nga li nga wane li nga nëbbu donte yàlla xamal na ko ko sax du la ko wan salawatullahi wasalaamuhu alayhi daan leen bàyyi ñuy dugg ci jàkka ji di ñëw di julli si si ak jullit ñi koo xamante ni bii gëmul yàlla parce que naafeq yi nekkoon ci jamonoom comme na ko alxaafid ibnu rajab alxanbali di waxee mooy naafeq yooyu nga xamante ni nifaaquhum nifaaqun akbar naafeq yooyu nekkoon ci jamonoom ci ay mel ne abdullah ibnu ubay ibnu salul ak ña ko toppoon naafeq gu mag gi lañ yoroon weddi yàlla ak weddi yonente bi alayhi salatu wasallam ak noonu ko ak ànd ak yéefar yi moo doon seen mbir mais dañu doon fasal ci kaw ne ay jullit lañ yonente bi alayhi salatu wasallam daf leen daan bàyyi ñu dugg ci biir ci biir euh, jàkka ji di julli ñu leen di may ay soxna ci jullit ñi ñuy jëflante ak jullit ñi di jëflante ak ñoom cheikh lislam taymi rahimahullah di wax ne hum fi zahiri muminuun yusalluna ma annas ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناحقونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناحكتهم ولا في موارثتهم ولا نجد ذلك بل لما مات عبد الله بن ابي بن سلول وهو من اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون وإذا مات لأحدهم لم يورث وإذا مات لأحدهم من يورث ولا من يورث ورثوه مع المسلمين فكان صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء في, في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر maa annahu kaana yalamu nifaqa kathirin minhum wa fihim man lam yakun yalamu nifaquhu qala taala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayni thumma yuradduna ila 'adhabin 'adhim Cheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah di wax wax ju am solo mu ne naafeq yi ci kaw ay ñu gëm yàlla lañ ay jullit lañ ci kaw fi zahir mu ne dañ leen di bàyyi ñuy julli ak nit ñi di ànd ak nit ñi di julli di woor di aji di dem di jihaat ci yoonu yàlla mu ne naka noonu itam <coughs> naka noonu itam ci wàllu ay sëy ak wàllu ndonn mun loolu la yontu bi alayhi salatu wasallam daan jëflante ak ñoom mu ne xamoon na ñu bëri ci ñoom ne ay naafeq lañ waaye daawul daawu leen àttee comme ay yéefar da leen daan bàyyi rek jàppe leen comme jullit ñi mu ne bokk na ci ku mel ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga xam ni moo doon rasul munafiqin moo doon kilifa yi jëwriñu naafiq yi yonente bi alayhi bi mu faatoo da koo jullee Omar da ko téye na ko bul ko jullee mu jullee ko salawatullahi wasalaamu alayhi yàlla wàcce aaya tere ko loolu mais laata yàlla di ko ko ko ko tere da koo jullee kon mooy da da ko doon daleen jàppee woon comme jullit yi lu dul loo xam ne yàlla moo ko ko tere ci seen mbir yàlla moo tere moom mu xam leen yow bu fekkee xam nga ko xamin bi ko yonent bi alayhi salaam xamoon bu boobaa nga fekk si ko ci atte boobu mais bu fekkee xamuloo ko xamoo mënu dogu ci nifaaqam bul gaawantu di atte nit ki ne naa fekk la du du ma ko jullee mu ne bi mu faatoo moom abdullah ibn ubay ibn salul rasul munafiqin doomam abdullah daf ko daf koo donn te doomam jooju min xiyaari saxaaba ci saxaaba yonente bi alayhi salatu wasallam yi gënoon baax yi gënoon tedd la bokkoon te dafa donn baayam yonente bi alayhi salatu wasallam neewu ko kii naafeq la woon ab yéefar la woon doo ko donn mu ne loolu moo nekkoon li wéy ci jamonoom yàlla subhanahu wa taala di wax yonente bi alayhi salatu wasallam ne ko ci ñi ñi nekk ci la wër ci Medina am na fi ñu fi nekk yow ñoo xamante ne ay naafeq lañ yoo xam ne dañoo alku ci naafeq ñun xam nañ leen donte yow xamoo leen mais yàlla subhanahu wa taala noppi gi mu noppi ci seen i mbir ci tuddul seen i tur ñu wax ko jullit ñi ñëpp ñu xam leen jàpp nañ ñi ay naafeq leen génn leen ci biir jullit ñi loolu xikma la min allahi subhanahu wa taala <coughs> ñaareel bi mooy mujahadatuhum bil ilmi wal xujjati wal iglaadi alayhim qaala taala ya ayuha annabiyu jahid almunafiqina jahid jahid alkuffara walmunafiqina waglud alayhim yàlla subhanahu wa taala dafay digal yonente bi alayhi salatu wasalam benn mbir ci naafeq yi mu nekkaat beneen taxawaay beneen doxalin mooy taral ak wax ci ñoom di wax wax du dëgër ci ñoom di leen dal pas di leen dal di leen cité di leen tudd mais toog di di dal mbiru naafeq yi ak di ko leeral ci kàddu ak ci di leeral xam-xam ak ci façon boo xamante ni façon bu leer la di jaar ci digg bi di ko leeral nit ñi di xam seen mbir nit ñi di xam seen i mbir seen mbir bañ a nekk lu lu nëbbu ngay leeral seen mbir di wax ak mbonam di wax seenu caay-caay ba nit ñi di ko xam moom loolu moo nekkoon uslubam sallallahu alayhi wa sallam nekkul woon koo xam danaan taxaw ci ay minbar di dénoncer di tudd ay tur wala di jo joxoñ ay nit waaye danaan wax wax joo xam ni ñëpp a koy bokk déggandoo fekk am na lu ci jublu kon taral boobu ak wax wax ju dëgër jooju ci ñoom yàlla subhanahu wa taala mu moo ko digal ne ko jaahidul kuffaar wal munafiqin waxlud alayhim la shakka ne jihaadul kuffaar bi ko yàlla di digal ak jihaadul munafiqin bokkul parce que jihaadul kuffaar yakunu bis silah jihaad bi ñu ko digal ci yéefar yi dafay nekk ak ak jaasi alors ko jihaad bi ñu ko digal ci naafiq yi laa yakunu bi silah nekkul jihaad bu bu muy def ak jaasi mais jihaad la bil xujja wal ilm jihaad la boo xam da nga koy leeral ci xam ak ci ay firnde yoo xam ne ngay leeral seeni mbir ak seenu caay-caay ngir nit ñi xam ko bu baax a baax <coughs> beneen bi ci des al anhum mooy dëddu leen bàyyi leen bañuy nekk di torop di yittewoo seen i mbir yàlla subhanahu dafa digg dafa waxoon yoon ne ko fa a'rid an na nga leen dëddu rek na nga leen bàyyi na leen bàyyi loolu yàlla subhanahu wa ta'ala wax na ko yonent bi alayhi salatu wasallam ba tàyyi ci seen i mbir imma ci caay-caay ñuy def yàlla subhanahu wax ko yonent bi alayhi salatu ko bàyyi leen seetaan leen wala ci nax yu ñu koy jéem a nax ci di gàttañlu ci topp yàlla di gàttañlu ci dimbali l'islam ba pare di ñëw nag di mel ne kuy nax yonent bi alayhi salatu wasallam di ko waatal ak di wax mu ne ko dëddul ba seet bàyyi leen rek seetaan leen ci ñaari anam yooyu yëpp yàlla subhanahu wa taala dugg du euh, digal na ko mu dëddu leen mu def i'rad mu bàyyi leen seetaan leen beneen bi stop mooy bañ leen a jullee loolu mooy tegu ci bu fekkee nit ki xam na ko comme ni ko yonent bi alayhi salatu ni ko yàlla xam xamalee woon mu xam naafeq yi daawu leen jullee daawu leen jullee daf daan fexe ngantal daawul def bu nit julli bu nit faatoo nekk ci naafeq yi mu ne naafeq la du ma ko jullee waaye daan fexe ut benn ngant ba du teew ci ci julli bi salawatullahi wasalaamu alayhi du teew tamit ci ci xabru yi mais janaasa bi du ko fekkee du ko taxawu du ko taxawu <clears throat> wala taqum ala qabri ndax tere boobu ko yàlla subhanahu tere mu taxaw ci seen i bàmmeel dafay dugg ci euh, taxawu janaasa bi yépp muy ñëw bi ci defar ko toppatoo ko fekkee ko fañ koy defaree ak fañ koy suulee ci ñaanal ko loolu yépp daf ciy dugg yàlla subhanahu wa daf ko koo tere kon terew ko julli bi rek mais xatta yeneen yi des yépp da ko koo tere salawatullahi wasalaamu alayhi beneen bi ci topp mooy ñu bañ leen di di leen jéggalul ñu bañ leen di leen jéggalul ndax yonente bi alayhi salaam bi mu bi mu jullee bi mu jullee ci Abdullah ibn Ubay ibn Salul yàlla subhanahu wa taala dafa wàcce alxuraan ko ko ndax julli googu tamit ñaanal leen ak jéggalul leen da ciy dugg ab naafiq kenn du ko ñaanal kenn du ko jéggalul loolu mooy koo xamante ni nifaaqam sax na muy nifaaq boo xam nifaaq bu fës la ñu ko tuddee ak nifaaqul akbar loolu nag ba léegi saa bu ñu ko waxee dañ ci moytandikuloo jullit bi ci ne balaa muy atte ci nit ki loolu dafa a nekk loo xamante ni lu muy am burhan la min allah bokkat na ci taxawaay yi ñu war am suñu diggante ak naafeq yi mooy di jéem a fekk seeni lor ak seenu ay di jéem a fekk seenu lor ak seenu ay parce que li ñuy yàq ci biir jullit ñi lu bari la loolu bokk na ci li ko nit ki di defee mooy di leeral seen mbir di ko waxtaanee nit ñi di ko xam pour xam seen mbir mooy tundiku leen benn ñaareel ba tamit bañ leen a jox ay poste de responsabilité ci biir jullit ñi yonente bi alayhi salatu wasallam musta responsabiliser naafeq musul jox ab naafeq poste de responsabilité daf leen daan bàyyi ci biir jullit ñi dem di ñëw mu gis leen di leen xam mais mosu cee jox kenn post boo xam ne bu sensible la ci poste ci responsabilité saa boo ko defee yaa ngi màbb l'islam saa boo jiitalee naafeq yaa ngi màbb l'islam <clears throat> beneen bi ci topp mooy bañ leen di leen topp adamu itaatihim bañ leen di leen topp yàlla subhana taala dafa terewoon yontu bi alayhi salatu wasalam ne ko yaa ayuha nabi ittaqillaha wala tutii alkafirina walmunafiqin yow yonent bi nanga ragal yàlla te bañ a topp naafeq yi ak yéefar te bañ a topp yéefar yi ak naafeq yi kon taatuhum yàlla subhanahu wa taala daf ko koo tere bépp jullit muy bañ a topp ab naafeq ci ay waxam ak ci ay ndénkaaneem ak ci ay digleem ak ci ay loolu tamit day laaj nga xam nit ki xam ak nifaaqam ci façon boo xam bu wér la wala nga gis ci ay màndarga yu la ragalloo tey sa xel ba tax nga tey ci mbiram ak ci ay proposition ak ci ay ndénkaaneem ndax dañuy ñëw dugg ci biir jullit ñi di wane rafet xel ak bëgg lu baax di joxe ay digle ak ay dénkaane yoo xam ne bu leen ci jullit ñi toppee ci alkande la leen di yóbbu kon bañ leen a topp tamit loolu lu war la rawatina kañ la leen bañ a topp di gën a téye gën a war ak gën leen a moytandiku mooy bu fekkee dañuy dañuy dañuy dañuy mandargoo diine dañuy euh, wane diine ak euh, xam-xam ci kaw xam-xam naa fekk day dugg ci biir jullit ñi góorgóorlu ba am astuut ci xam-xam boo xam ne boo waxee nit ñi déglu ko mu exploité loolu di yàq. benn alimaamu dahabi ci taarixul islam dafa wax ne mu jële ci abi imran aljuni mu jële ci haram ibn hayyan ne haram benn jour <coughs> benn waay ci jamono amar dafa bind daldi di ne iyakum wala alimu alfasiq wala almunafiq mu ne mooy tunduku leen borom xam-xam boo xam ne ab kàccoor la bi ko omar déggee bind ko ne ko na ma wax li ngay li ngay wax noonu loo ci namm aalim faasiq loo ci nam mu daal di bind Omar di ko tontu na ko yaa amir almuminin ma aradtu illa alxayr yakunu imamun yatakallamu bililm wa yalamu bilfisq wa yushabbihu ala annaasi fa yadillu mu ne ko yow njiitu jullit ñi namm moo lu dul yiw waaye nag dafa am léeg-léeg koo xam ne mën naa jiite jullit ñi di wane xam-xam nit ñi topp ko ci kaw loolu fekk ne ab kàccoor la ab génn topp la mu ne bu ko defee mu sànq nit ñi man loolu rek laa ci nam addahabi lan la ci teg addahabi <coughs> mu ne qultu innama ankara alayhi omar annahum lam yakunu yaudduuna alaalima illa man amila bi ilmi addahabi mu ne lan moo tax omar bi mu déggee waa jooju mu ne moytundiku leen borom xam-xam boo xam ne kàccoor la borom xam-xam la boo xamante ne bii du jëfe xam-xamam moytundiku leen ko dahabi mu ne bi ko omar wax ji leeru ko xamul kooku li muy wax lan la ci nam ba tax Omar wax ji daal accepté wu ko muy bind di ci waajooju yónnee ci moom ne na ko leeral li muy wax moo ne li tax Omar xamul loolu mooy ne ñoom ci seen jamono li ñu xamoon ci ku am xam-xam koo xam ne day jëfe xam-xamam mu ne ñoom daawuñu tuddee ku am xam-xam koo xam ne du jëfe xam-xamam ku daan jëfe xam-xamam la tuddee borom xam-xam moo tax bu déggee nit di wax borom xam-xam kàccoor boole ñaari melokaan yooyu day jaaxal Omar kon naafiq bi nga xam ne dafay wane xam-xam ci kaw fekk ne ab kàccoor la ci suuf moo gën a tee dangereux encore mën na yàqu lu bëree bëri bëri bëri ci lislaam ndax dafay jëfandikoo xam-xam bi comme arme di dàgg sante ci alquran ak ci sunna fekk ne ci caay-caay gu wér la jëmale nit ñi loolu kon lu gan jërë gën a tee moytandiku la ci buntu ñàkk topp ab naafeq seen bu yàq ci bunt boobu lu lu lu doy waar la. Hmm? waaw léegi nañ gàttal li luñ ci am rek baax na ma woowu moom muy wax ay soil ma ne ko soal yi moom lii moo gën a nekk priorité incha allah waaw asila yi loolu kon lenn la ci ay qawaid ngir jëflante ak ñi nga xamante ne bii naa naafeq lañ ngir fekk seen lor ak seeni ay ngir fekk seen lor ak seen wu ay li nga xam ne moom lañuy tëjee te mooy jubluwaay waxtaan bi li jiitu lépp mën nañu wax introduction la rek mais li nga xam ne mooy baytul qasid mooy jubluwaayu waxtaan bi mooy athamara mooy turuqul wiqaaya min min annifaq <coughs> turuqul wiqaaya min annifaq yoon yi nit ki mën a jaar ba yàlla subhanahu wa taala baaxe ko mu mucc ci naafeq ndax <coughs> araftu charra laa li charri lakin li tawaqihi wa man laa yarifu charra min annaasi yaqaw fiihi da ngay xam lu bon pas pour def lu bon mais pour moytu ko ndax boo xamul lu bon ak lu baax di nga tàbbi ci lu bon jubluwaay bi ngir nit ki mën a fexe fekk loolu ci boppam ngir nit ki mën a fexe fekk loolu ci boppam bokk na ci yoon yi njëkk ci jéem a saafara ndax bakkan dañ ko dañ koy yar qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha des koy traité bakkan des koy fóot bokk na ci yoon yu njëkk yi nga xam nit ki mën na cee dimbali ci tawfiqu yàlla subhanahu wa taala mu mujj ci nifaq mooy qatu achak bil yaqin mooy sikki sàkk gi nga xam ne seytaan dina ko jël di ko tàbbal ci ngëmam mu fexe ba loolu mu dog ko ndax nifaq bokk na ci yi muy dikkee mooy nifaqu chak mooy naafeq goo xam naafequ sikki sàkk la nit ki amul lu ko leer ci ngëmam gëmul bàyyiwul day dengi dengi léegi nit ki bu bëggee mucc ci déngi déngi boobu muy chaq boobu dafa war a fexe góorgóorlu ba lépp luy waral sikki sàkk di tàbbi ci biir ngëmam mu dog ko mu fekk ko bañ a exposé boppam ci sikki sàkk di dugg ci ngëm yàllaam mu bañ a def loolu yàlla subhanahu wa taala di wax ne innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu ñi nga xamante ne bi ñooy ñi gëm yàlla dëgg mooy ñi am ngëm gu wér ci yàlla ngëm gu wér ci yonentam alayhi salatu wasalaam te amuñu ñu ciy déngi déngi cheikh alislam taymi rahimahullah di wax ne wa kathiran ma tu'radu lil mu'mini shu'batun min shu'ab an-nifaq thumma yatubu <clears throat> thumma yatubu allahu alayhi wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu allahu anhu والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره mu ne bëri na nu lenn ci bànqaas ci façon ak naafeq di nekkee lu ñuy gaar ci xolu ki gëm yàlla lenn ci ay façon yi na ak naafeq goo xam ne des koy gaar wala dina gaaru ci xolu ki gëm yàlla subhanahu wa taala mu ne am loo xamante ne dafay rot ci xolam moom ki gëm yàlla loo xam ne dafay waral ci moom ak naafeq bu ko bu ko wuyoo mu ne waaye yàlla subhanahu wa di ko fegal loolu yàlla subhanahu wa di ko ko fegal mu ne ab ab ku gëm yàlla ab jullit des na ko nattu ci ay jax-jaxal yoo xamante ni seytaane dina ko tàbbal ci ay ci xolam jax-jaxal yooyu nekk ak kéefër goo xamante ni bii seytaane moo koy sànni ci xolam xol bi di naqari di ko rejeté mel na luy fudd mu koy xalaat xelam mel na lu ciy jëm waaye mu koy rejeté xel bi xol xol bi daal lu ko nangu xol bi di ko rejeté loolu ay wasaawis la yoo xamante ni ci seytaane la jógee ci nifaq lay jëme nit ki ak ci sikki sàkkaloo ko ci ngëm yàllam mu ne kama qaala يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال ذلك صريح الإيمان وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة والحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد mu ne moom Cheikh al-Islam ibn Taymi rahimahullah mu ne comme ni nga xamante ni saxaaba yi dañ daan ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasallam di ko jooytu ne ko kenn si ñun dafay yëg léeg-léeg ci xolam loo xam ni mu jóge ci asamaan daanu ci suuf sax moo gën a oyof ci moom mu koy wax di ko génn ci làmmiñam ay mbir yu tar yoo xam ne ci sa ngëm di la gaar ci sa xol nga koy yëg di ko xalaat sa xel di ci dem nga jóge ci asamaan si daanu moo gën a oyof ci yow nga wax ko ñu ñëw di ko jooytu yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi alayhi a wasalaam awajatumuhu ndax loolu dangeen koy daj ci seen xol mooy mbañ googu ngeen di bañ a wax mbir yooyu ak bañ koo jëf rejeté boobu ngeen koy rejeté ndax loolu lu ngeen di daj ci seen xol la ñu ne ko naam mu ne dalika sarixul iman loolu mooy dëgg-dëgg ngëm yàlla ngëm yàlla mooy ñu lay nattu ci jax-jaxalu seytaane yooyu sa xol di taxaw sa xol di rejeté loolu mais bu fekkente ni jax-jaxal yooyu noonu ci yàlla ak ci dina yàlla ji day ñëw ci sa xol di jàll di dugg sa xol di ko accepté loolu ci nifaq lay yóbbu nit ki mooy nifaqu shakk wa riba kon nit ki day góor góorlu ba fexe di fekk wasaawis yooyu sikki sàkka yooyu ci ngëmam mu koy fekk di ko fekk <coughs> loolu laa shakk ne ci jàng xam-xam ak settantal téere yàlla bi ak settantal kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala ak yokku xam-xamam yokku leeru xolam ci xam-xam alquran ak sunna ci loolu ko yàlla subhanahu wa taala mën a baaxee ba mu am arme bu am kàttan bu ko mën a dimbali ci mu fekk mbir yooyu nga xam ne day jóge ci seytaane ñaareel bi xam itam al ilmu bi adrar aw bi maa lin nifaqi min adrar wa mafasid nit ki xam mbonte ak njeexitalu ak mujjuk ak naafeq mu xam ay mbonteem xam ak mu jëm xam bu baax ndax bu xamee loolu loolu dina ko dina ko tax mu ragal ak mu bañ ak lépp loo xamante ni mbiri naa feq la mu bañ ko mu sori ko mooy tëndiku ko ba du ci tàbbi moo xam ci lu ndaw wala lu bari la ndax problème bi mooy boo xamul ak nifaaq mën nga di ko di ci tàbbi ci say jëf di ko def ba miin ko boo ko miinee rek daal di soo moytul tàbbi ci nifaaq bi nga xam mooy nifaaqul akbar ndax yonente bi alayhi salatu wasalam jëf yooyu mu wax لمن كانت فيهن أو فيه أحدهن أو خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق ku ci am benn am nga benn ci mandargay naafeq daf ne ku am yépp ab naafeq nga <clears throat> boo amee benn góorgóorluwuloo ci mu deñ beneen ñëw bu beneen ñëw beneen ñëw bu ñu fa fekkantee rek nga daal di doon ab naafeq mooy ne kon naafeq gu ndaw gi wasiila la yoon la sullam la escalier la boo xam da nga ciy jaar ba àgg ci naafeeq gu mag gi kon xam jëfi naafeq ak mbiru naafeq xamin bu leer ba dina tax nga gën a mën a góorgóorlu ci moytundiku ko waaye nga xam ko tamit xam ak mbonam xam la ca nekk tax nga moytundiku ko nga daw ko moo tax xudayfa ibn al yaman daf daan wax ne kaana annaasu yasaluuna rasul allahi sal allahu alayhi wa sallam an alxayr wa kuntu wa kuntu asaluhu an comme ni ñoo ci saxiil Buxaari Xudayfa def ne nit ñi dañ daan laaj yonente bi alayhi salatu wasalaam lu baax ñëw di ko laaj lu baax yoonu lu baax ak nee na man mais ñëw di ko laaj lu bon di ko laaj fitna fitan yi nga xam ne mooy ñëw ci axiru zaman wala mooy ñëw ci jamono di dal nit ñi ci seen diine ak yooyu di ko ko laaj mu ma koy leeral ndax tabbi bu ma ci ragal a tabbi ak bañ bu ma ci bañ a tabbi moo tax ma ko doon def kon da ngay jàng lu bon xam ko ngir moytundiku ko maa neewuñ dangay nekk ci lu bon ndax ñeen ñi jàng lu bon boobu xam ko lu ñu ko déggee mooy dangay ngay dem dugg ci lu bon wala nga fekke fañ koy defee teew ko ne da ko koo bëgg xam pour ko yaa ngi ci ba pare ne da nga koy boo ci nekkee kay jaratul nga koy moytandiku maanaam jàng ko luñ ci nam mooy comme jàng mbiru naafeq ak mbiram biiram ak biteem ak li ci yàlla wax ak yonentam alayhi salatu wasalaam ngir loolu tax nga gën koo ragal gën koo bañ ak tamit xam naka nga koy moytandikoo loolu bokk na ci yoon yi nit ki di jaar tamit pour moytandiku ak naafeq beneen bi ci des mooy as-sidqu maa nafs wa mujahadatuha ala alxaqi walxawfi alayha min marad nifaq bokk na ci yeneen yi nit di jëfandikoo ba léegi mooy ngay ragal ci sa bopp di tiit ci sa bopp ak di xeex sa bopp dëggu ci di xeex di dëggu ci di xeex sa bopp nit dafa war dëggu ci digganteem ak boppam boo dëggoo sa digganteeg sa bopp ci yi ngay seetlu ci moom ci ay jikko yu bon ak ay doxalin yoo xam ne jaaduwul jaarul yoon nga nangu ko di ko di ko di ko dindi di ko faj moo xam ci sababu nit moo la laayee biir wax la ko nga accepté ko jëm a fexe xeex loolu mu deñ ci yow nit koo xam du wax dëgg sa mbokku jullit taaj la wax xamal ne la yow doo wax dëgg te ñàkk wax dëgg loolu ci mandargay naafeq yi la bokk ngir laa biir la sama digganteeg sama borom góorgóorlul nga fexe jikko boobu mu deñ ci yow wax dëgg dafa baax mandargay jullit la yàlla dafa bëgg wax dëgg yonente bi alayhi salatu wasallam dafa bëgg wax dëgg te yow doo wax dëgg kon ci sababam nga xam sa jikko boobu nga delloo sa xel sa bopp sa digganteeg sa borom nga xam ne yow mii doo wax dëgg nga faj loolu dindi ko ci yow maanaam nit da war a dëggu sa digganteeg sa bopp waroo nax sa bopp wala yow nga seetlul sa bopp jikko boo xam xam nga ni lii mandarga yi naa feq la jikko bu baaxul la nga jéem a fexe faj loolu mu deñ ak di tiit ci sa bopp ak nifaaq fala tuzakku anfusakum huwa alam bi man ittaqa nit nit bul bul bul bul tazkiye sa bopp bul jàpp ne yow da mat xalaas parce que nit ñu bëri par principe nii ci kaw nii nii nangu nañ ne duñu maasumun nekkuñu ñoo xam ni dañoo mucc ci njuumte nangu nangu nañ loolu boo leen waxee ñu ne la man damay juum rawatina bu ñu defee njuumte ba faqastalu bëgg nga jéggal leen dañ lay wax ne la man damay juum nit rek la mais foo xamante <coughs> foo xamante ni ci wàlluk mat la ak wàlluk ay jikkoom ak ay doxalinam nga bëgg ko faa tegal loxo ne ko lii moom sa say doxalin nekkul lu jaar yoon loo war a jubbante la day bañ du ko nangu même bu fekkente ni dëgg la bëri néew na ci nit ñoo xamante ne am nañ courage buñ leen critiqué ci yoo xamante ni seen i jikko ci yu mel noon ñu nangu ko moo tax nit da nga war a dëggu sa digganteeg sa bopp ci di nangu nasiha ak tamit di delloo sa xel sa bopp di saytu sa bakkan di ko xool ak di ko jéem a faj ak di moytandiku feebar yi nga xamante ni mooy feebaruk naafeq alimaamul Buxaari dafa solo jëlee ci ibn abi mulayka mu ne adraktu thalathina min ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yaxaafu nifaqa ala nafsi ma minhum ahadun yaqul <coughs> ma minhum ahadun yaqul imaani ka imaani jibril ibn abi mulayka dafay wax ne jot moom ab ab taabii la mooy ci ñi ñëw ginnaaw saxaaba yi mu ne moom jot na daje ak lu mat fanweer ci saxaaba yonente bi alayhi salatu wasalaam 30 daje na ak lu mat 30 ci saxaaba yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne ku nekk ci ñoom yaa ngi ragal a nekk ab naafiq mu ne kenn ku nekk ci ñoom yaa ngi tiit nifaq ci sa ci sa bopp ñoom ñooy kan asxaabu rasulillah ñoo génne ci madrasatu Muhammad ibn Abdullah ñoo taxaw ak moom fépp fu mu mës a taxaw ñoo jàllale lislaam ñoo ko jàppale ñoo ko dimbali ñoom la yàlla tagg ci alquran ñooñu ñooy ragal naa fekk ci seen bopp kay fa yow kon yow da war di foo toll sëgam ñooñu ak seen jëf yi ñu jëf yëpp ak leen yàlla seedal ci alquran ak ngëneel li ñu am ñoo daan tiit ak naa fekk ci seen bopp amul ci ñoom kuy jàpp ne dafa gëm yàlla comme ni ko jibril gëmee mooy amul ci ñoom kuy jàpp ne dafa am ngëm yàlla gu mat dañ daan jàpp ne seen ngëm yàlla dafa doyadi dafa matadi ñuy jéem a góorgóorlu di ko mottali mu ne ci noonu la leen fekke woon radiyallahu anhum wa ardaahum kon loolu dafa war a nekk taxawaayu jullit bi mooy dafa war di tiit ci boppam dafa war di tiit ci boppam ñeenteel bi di bëri di tudd yàlla subhanahu wa taala ak di jàng alquran naafeq yi ñu new tudd yàlla lañ ñu néew tudd yàlla lañ ñu new di setantal alquran lañ yow góorgóorlu ci di tudd yàlla lu bari loolu day setal sa xol dafa lay day setal sa bakkan di di jàng alquran di rafetal say jaamu yàlla di taxaw ci ay jaamu yàlla cheikh alislam ibn taymiya rahimahullah dafay wax ne qiraatu alquran ala alwajhi almamuri bihi tuurisu alqalba aliman alazim wa taziduhu yaqina wa tumanina wa shafa qala taala wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin wala yazidu alzalimina illa xasara وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وذكر الله بمفهومه أو ذكر الله بمفهومه العام يشمل المواظبة على أذكار الصباح والمساء من أحاديث السنة النبوية الشريفة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة والصيام والزكاة والحج والعمرة واجتناب المحرمات وفعل الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرضا بقضاء الله وقدره وحمده ولا وحمده ولا وحمده ما أدري يشمل أظن يشمل وحمده على نعمه والدعاء والتوبة والاستغفار كل ذلك من ذكر الله تعالى عز وجل الذي ينجي صاحبه ولا ينجي صاحبه من عذاب النار muy wax ne moom Cheikh al-Islam Taymi rahimahullah mu ne jàng alquran ci anam bi nga xamante ne noonu lañ la ko sante mu ne dafay setal xol dafay yokk ngëm yàlla subhanahu wa taala dafay dolli nit ki am kóolute ci digganteem ak boroomam dafay dolli nit ki am ak dal dafay satal bakkanu doomu aadama bi yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ne moom moo wàcce ci alquran loo xamante ni bii yaani min alquran nekkul min للتبعيض لبيان الجنس la wa nunazzilu min alquran min boobu nekkul li tabiid mooy yàlla waxul ne dafa wàcce ci alquran loo xamante ni bi day faj maanaam kon alquran lépp du faj mais da ci am loo xam ne day faj la ca des du faj min bi tekkiwul loolu mais min jinsi alquran yàlla dafa wàcce alquran ji ci boppam mu bokk ci li nga xam ne day faj maanaam alquran kon dafay faj loolu lañ ci nam <coughs> wa rahmatun lil muminin nekk itam yërmande ci ñu gëm yàlla subhanahu wa taala yàlla subhanahu wa taala wax itam ne alquran ji leer la njub la ñeel ñi gëm yàlla subhanahu wa taala mu waxaat tamit ne la yàlla subhanahu wa di wàcce naafeq yi di ci am leen metti ñoom ñi gëm yàlla da leen di ngëm yàlla te itam dañ dañ cey bëgg te tudd yàlla googu nit ki di bëril di def nga xam ne dina ci moytundiku tabbee ci naafeq ci façon bu yaatu ci déggin bu yaatu dafay ëmb tudd yàlla gi nit ki yàlla suba ak ngoon bëccëg ci bëccëg bi ci suba gi ak ngoon gi tudd yàlla yi ñu la yi nga xamante ne jàngal nañ la ko ci alquran ak ci sunna nit ki di di di saxoo di ko def nit ki di ci taxaw di saxoo di ko def dafay dugg ci tudd yàlla googu le ak itam di sàmm di taxaw ci julli julli juróom ci ay waxtoom ci góor góorlu di ko fekk ci mbooloom ak koor ak azaka ak aj ak omra di moytandiku yi nga xamante ne bi mooy xaraam yi di taxaw ci di topp yàlla subhanahu wa taala di digle lu baax di tere lu bon di ànd ci ndogal yi borom bi subhanahu wa taala ak di ko sant di ko gërëm subhanahu wa ci ay di ko ñaan di ko tuubal di dellu ci moom di ko jéggalu loolu yépp dafay dugg ci tudd yàlla bi nga xam ne mooy muccal jàmm bi mbugal bu ëllëgee <coughs> yonente bi alayhi salatu di wax ne ma ma amila aadami amalan anja lahu min adabi nnar wala min adabi illahi min dikrillah mu ne doomu aadama jëful jëf bu ko gën a musal ci safara jëf bu mel ne tudd yàlla subhanahu wa doomu aadama jëful jëf bu ko musal ci mbugalu borom bi subhanahu wa taala jëf bu mel ne tudd yàlla subhanahu wa taala xadis boobu fii musnad imam ahmad wa saxaxahu cheikh nasir rahimahullah beneen bi ci des te moom la ñuy tëjee waxtaan bi ci yi nga xam nit ki mën na cee fegoo ci ak naafeq mooy di bëri di di ñaan yàlla subhanahu wa taala di dellu ci borom bi subhanahu di ko ñaan ñaan boo xam ne ñaan ñaan bu dëggu la ñaanu toroxlu bu dëggu ci yow boo xam ne du li ngay def nii da koy def nii rek di ñaan mais jàpp nga ni sax naa fekk moom mënoo cee tàbbi da ngay ñaan nii rek ci formalité nii rek dangay ñaan déedéet ngay ñaan yàlla ñaan goo xam ne ñaan goo goo dëggu la ne ñaan gu la goo xam da ngaa tiit am njàqare ci sa bopp bëgg yàlla subhanahu wa taala musal la ci ci ci mandarga ak ci jikkoy naa fekk ngay julli di jooy di ñaan sa borom subhanahu wa taala booy ñaan nga koy ñaan musal la ci nifaaq yonente bi alayhi salatu wasalam daan na bokk ci ay ñaanam allahuma inni audu bika min alchiqaq wa nifaq wa suu il axlaq yonente bi alayhi salatu wasalam bokk na ci yim daan muslu ci ay ñaanam daan na wax naan yow yàlla maa ngi lay mus musandiku ma la hawla wala quwwata illa billah yow yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay muslu ci ak xiiroo ak ŋaayoo di la muslu itam ci di muslu ci yow tamit ci ay jikko yoo xam ne jikko yu ñaaw la moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi ci xadis boo xamante ni thabitun anhu fi musnad al imam abi daawud wa nasaa'i wax ne maa ngi lay muslu ci naafiq salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon nit ki war nga tamit di bokk ci ngay muslu di dimbali sa parce que iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ci moom la ñuy dimbali ko li ñuy taxaw di góorgóorlu ci diine ak di ko def yàlla subhanahu wa taala mooy al mustaan moom lañ ciy dimbali ko kon nit ki jullit bi bu amee lu mu ragal am lu mu tiit war na dellu ci boromam subhanahu wa taala ko ak lu mu mën a doon jikko bi jikko bu bon la wala melokaan bi melokaan bu bon la boo xam ne day yàqal nit ki diineem mi ngi ut ay pexe ak ay yoon yu mu jaar pour mucc ci ngànnaayam bi gën a rëy mooy mu dellu ci boromam subhanahu wa taala ñaan muslu ci moom musal ko ci jikko boobu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain